bi mu teg ci kaw góor ci biiru sëy mu ne ko yow yaa jiite moo tax mu ne wa bi ma anfaqu min amwaalihim ak seen wërsëg joxe ndax moom lañu ne jógal wuti moom la ñu ne demal labati moom la wax ne joxeel ak can moom la ñu wax ne yoreel dépense moom la wax ne euh, dëkkal ko kon ma ne xiwaama googu maanaam kilifteef googu ci biir néegub sëy lisaam daf koo jox layal ko itam kon nee na àq yi nga xam ne euh, droit matériel la bu ci njëkk mooy dundal gi lekk geeg naan geeg la cay aju maanaam joxe dépense euh, beneen bi koddaay euh, am na fu ko alquran di wax wa ala almawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna na mooy dépense bi na mooy koddaay li soo gisee fuqaaw yi dañ cee sonn lool ba am na ñoo xam dañ naan la gën jàggatt euh, lu mu ñàkk-ñàkk war na ko wutal ñaari at mu nekk ñaari yére yére yi sedd ak yére yi tàngaay maanaam te mooy li ñuy wax le minimum le strict minimum su ko defee koddaay gi su jàllee dëkkal gi ñëw dëkkal dëkkal nag firiwul sax nag ne da ko indi këram waaye su ko indiwul këram itam war na koo dëkkal moom moo xam da koy luyeel wala leneen da koy tabaxal lu mu lu mu mën def ndax loolu assurance lañ koy jariñ loolu droit boobu mën nañu jàpp ne euh, maanaam matériel la bi nga xam ne nag moral lañ koy jàppe walla maanaam mi moral mi ki mooy dëkkoo bi ndax ab sëy nee naa ci la yàlla di jaale maanaam tël doomu aadama moo tax dëkkoo bi mun a ñàkk boroom xam-xam yi itam dañ ci wax ba sax am na ñoo xam dañ lay tuddal gën jaa ñàkk munta gën jaa gàtt munta ñàkk nangami yoon waaye loolu neexut a ndax nit ñi bokkuñu seen i kàttan bokkuñu seeni i bokkuñu kon du loo xam ne eh, maanaam facultatif la daal ku nekk yaa xool na ngay toje sa bopp janax ak yaag sa eh, soxna mbaa yaag sa boroom kër nu ngeen koy organiser loolu mooy dëkkoo bi waaye ñàkk dëkkoo gi sabab la ci fas say bi ci ci fase sëy bi fas sax su boobaa lañ koy tuddee ngir wane ne du répudiation maanaam juge ci boppam mooy intervenir daane comme que nangam ji amul man fase naa ko beneen boo xam ne aju na ci loolu maanaam ku wax dëkkoo kon ñoom ñaar war nañoo jege waaye boroom kër bu dem ñàkk ñëw wala soxna su dem ñàkk ñëw itam lislaam daf koy tere ba sax am na ci ñoo xam ne ay at la ñuy teg koo xam ne gisatuñ ko nangami at yii su xasee jàll kon dañuy fase sëy euh, dañuy fase sëy bi loolu du ma ci dugg ndax maître Dabo li mu ciy wax moog li lañ ci kii du soree <coughs> kon loolu mooy bi nga xam ne mën nañ ko xaw jàppee tuuti matériel mën nañ ko jàppee leneen waaye bi nga xam ne ñëpp jàpp nañ ne moral la nag mooy kilifteef kilifteef gi nag dafa am lu mu àndal kilifteef gi dafa àndal conseil maanaam di ko laabiire nga xam ne ña ñoom Euh, dañ naan la góor gi bokk na ci moom mu koy digal ak di ko tere lu yàlla tere bokk na ci moom di ko xamal moo tax nga gis sëñ Tuubaa dafa sonnoon lu mel noonu sëñ bi nekk na ci géej gi teewul muy yónnee ay lettre di ko jaare ci maam Thierno naa ko nañ xamal jii diine yi nañu jàng alquran nañ leen di julliloo ak yu mel noonu loolu ci droit boobu ci lay ci lay ci lay dugg euh, kon euh, dafay mel ne côté boobu soo gisee lu muy firi góor gi la war comme droit comme devoir laa bëgg a wax jigéen gi moo ko moom comme droit waaye jigéen gi moom lu ko war dañu jigéen gi benn obligation moo ko war moral mooy li ñuy wax xaqu taa droit d'obéissance obéissance nag day xaw metti léeg-léeg ci dégg ni daal xam nga surtout jamono jeeg li xew ak euh, courant yu bees yi ñu dugg suñ nee dégg ndigal am na ñoo xam ne soumission lañ koy jàppe fekk lislaam maanaam wax sax soumission wala servilité wala yu mel noonu déedéet dama ko junjoon sànq ne lislaam dafa tënk lu ne jàkka ji bu ñu fi ñëwee jàkka joo xam ne am na imaam ratib ci ngirum imaam Malik sax kenn sañu fee julli ñaari julli mbooloo ba mu des ñenn mooy ñu doon tukki jaar fi kese ñoo ko sañ jàkka joo am imaam ratib julli nañ ba noppee ak mbooloo ci nun amut julliwaat kuy ku ñëw tardé da julli li wax furaada individuellement kii ñëw julli kii ñëw julli kii ñëw julli organisation bi la xëy na nag ci yeneen ngir yoo xam ne loolu ci waaye dama bëgg wax rek comme que loolu moo nu gën jege ñun ñi kii imam Malik loolu laa koy expliqué ñun ñëpp dañoo am droit ci am imam maanaam ki ñuy jiite muy xalifa bu jullit ñi nga xam dañuy jaayanteeg moom ci dégg ak topp fil manshat wal makrah lu mel noonu l'islam organisé cellule bi gën ndaw muy famille teg ko ci loxol góor waaye teg ko ci ay charge yu bëree bëri mu sañ a digal nag kii mu sañ koo digal sañ koo tere waaye kon loolu dafa mel ne am na moom droit moom góor gi ñu war koo topp jigéen gi am droit ci sañ toppe waaye ci lan bil maaruf ci njekk ci njekk moo tax euh, sëñ Tuubaa ba muy wax naan comme ku boroom këram gërëm lu mu wax mooy borom kër bu ragal yàlla da ko tënk du càgg ne lu ñu la digal rek nga defee ko ndax bi ci jiitu mooy na fekk lam lay digal du diggal du wuute ak ndigali suñu borom yi wala dana sàmmoonte ak tere yi kon loolu moom laa doon tënk ci euh, maanaam jeexitalib dencante muy ñaari xeeti àq àq yoo xam ne matériel la ak àq yoo xam ne moral la benn côté bi ak ñaari yi àq àq boo xam ne góor gee ko moom ak àq yoo xam ne jigéen gee ko moom euh, soo ci duggee day xaw a gudd léegi nag ne woon naa ci tàmbali gi ne fas fas gi fas gi mooy dugal ci sëy ana lu ci génnee ma ñaar la benn bi mooy fase bi gis mooy faatu kenn ci ñaari way dencante yi fase nag dafa bari ay xeet te wolof yépp daanaka fase la koy wax summi ko sax fase la koy wax te bokkuñu lu koy indi bokkuñu luñ ciy génnee li ñuy wax tatliq fase lañ koy wax li wax fas fase lañ koy wax waaye ni ma koy tënkee mooy bala ñuy wax fase ñaare euh, arab yi dañuy wax wenn léebu am solo dañ naan aaxiru dawa alkay dañ ne ñaas am na ne nañ ko tudde dul ñaas de sëñ Cheikh Isa kay jam déedéet ah gàjji gàjji dañ naan gàjji mooy dernier recours pour faju bala nga koo def bala koo def na dem ba na fa sës fase noonu la mel loolu tax balaa boobu am na ay li ñuy wax tentative de réconciliation tentative mooy jéem jéem a jubóole alquran wax na ko nee na su ngeen ragalee ñoom ñaar ñu def ni fantashiru da ngeen di yónni ku am xel ci wàllu gii wàllu góor gi ku am xel ci wàllu jigéen yi suñ fekkee ne ñoom ñaañu bëgg nañ yàlla mën naa def ci diggante bi mu daal di sotti wa in xiftum shiqaaqa baynihima fa baatu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha in yurida islaaha yuwaffiq illaahu baynahuma nga xam ne duñ jékki-jékki rek may ma sa baat may ma sa baat mu ne may naa la ko wala may naa la sa day yomb léegi nag su fekkee ne nag loolu jëm nañ ko sottiwul nag ci la ñuy doog nag seet leneen leneen googu mooy fase gi ndax léeg-léeg fase dana doon solution xëy na gënul ci solution yi waaye léeg-léeg dana gën ci solution yi nga xamante ni ñoom ñoo disponible moo tax suñu borom ne wa in yatafarraqa yughni llahu kullam min saati moom laa firi woon sànq ne wala sa interprété lay gën doon di ko firi euh, maanaam xàcc bu nekk wërsëgu waay la littéralement lu muy firi way yatafarraqa ñoom ñaar suñu tasaaroo kii jëm ndeyjoor kii jëm càmmoñ wala kenn ku nekk dellu kër baayam yuxnillahu kullam min saati yàlla am na lu mu wërsëgale ku ne kii mën naa am ku gën ki mu àndaloon kii mën naa gën ku mu àndaloon kon ku nekk am na ku gën waaye nee naa nag na doon lañuy ñuy mujj def definu itam ana nan moo ci gën nan moo ci gën ci fase loolu dañ koy tuddee ab talaaq as-sunni ab talaaq as-sunni loolu itam day wone yërmandey lislaam ci ñaari way dencante yi rawat na ci jigéen gi day wax naan ko fase bennum mennum fase bu mu ko fase ci biir mu tëddi idda ma dé kii xayob waaw mu gis baax daal te itam na ko bàyyi ci kër gi mu toog ñetti charte yu am solo la loolu nee naa day wone yër yërmande yi yërmande lislaam ci jigéen su fekkee ne da ko fase ci biir nu tëddi mbërëg da koy bàyyi boo xam ne laab na ba gisut mu doog commencé su dul loolu day yàggal iddaam yàggal idda jooju baaxul ci jigéen loolu di benn ñaareel bi na ko def muy benn menn passé bañ ko def ñett ndax euh, maanaam fase jigéen benn jataay ñetti yoon loolu day euh, talaaq bidda yi lañ koy tuddee dafa wuute ak sunna am na ci ngir yoo xam sax dañoo jàpp ne boobu menn benn passé lañ koy jàppe ndax yërmande ji ma doon wax ci jigéen Seydina Omar nag dana woon nit ñi comme que dañuy caaxaane fase nañ leen fekk ca lañ bëgg waaye nit ki doo jum ba pare bëgg jariñ waat sa njuumte lu ci mën di xew boobu mooy ñaareel bi ñetteel bi mooy na ko bàyyi ci kër ga na ko bàyyi ci kër ga moom alquran moo ko tuddal boppam fa talliquhunna li iddatihinna moom laa njëkk tudda mooy kii bu njëkk bi charte bu njëkk bi wa ahsul idda idda da nga koy xam ba su jeexee atte yi ca topp nga mën koo sàmmonteel lu mu ca teg wattaqullaha rabbakum ay waay nga la ragal leen yàlla ci li ma leen wax nangeen ngeen ko defee nii ak doonte jàppale ngeen ne du obligatoire ndax élégance la ndax ragal yàlla la wattaqullaha rabbakum ragal leen yàlla ba laa na min buyutihin gis nga fase na ko pare waaye lislaam nee na seeni néeg la seeni kër la ngal la bu leen génne seeni kër ndax yërmande la ci jigéen gi waaye yërmande la ci góor gi danaa wax ci kanam lan moo tax mu doon ñàkk génn gi lan moo tax mu doon yërmande ci ñoom ñaar ñëpp wala yaxruj na la ca teg bu leen leen bàyyi ñuy génn suñ demee ba mënoo ci dara loolu waxuñu ko waaye góor gi na ko fase ci fase mii ma wax muy ñu koy tudde fasem pay li bu mu ko génnee bu mu ko bàyyi mu génn xanaa su demee ba ëpp ko doole wala bokk am lu xew loo xam ne moo waral fase mi dëgg-dëgg muy lu lu lu noonu lan moo tax ma ne ñàkk gee génne yërmande la ci góor gi ak ci jigéen gi rawat na ci jigéen gi ñaare aw ay su siiwee ku nekk dugg ci te ñi cay dugg dañoo bokkut am na ñoo xam ne xam bu ab taal daleen a gënal subaa su génnee comme ku ci waratoon a jot dana jot bi ci des tam su toogee nag aw mer la woon ci diggante mën naa giif su ñu delluwaat ci yoonu keneen du ca nekk kon yërmande la ci jigéen gi kenn bañ koo xamal dara waaye yërmande la ci góor gi nga xam ne léeg-léeg day xam ne moom mii def na musiba su toogaat tuuti xalaataat mën naa desiwaat te su desiwaatee fekk na kenn yëgagu ko wala ñu bari yëgaguñ ko jàmm na ñooy fekk ne waxtu tàkkusaan wi moo jot mu dëppoog fi ñu war a yëkkatee noddu gi incha allah dañ leen di ñaan ngeen euh, taaxeerlu tuuti fi benn minute bu ko defee ñu nodd bu noddu gi daanoo ñu wéyal bu ñu wéyalee lu mat xam naa ne fukki minute julli jot ñu julli bu ñu jullee ba nopp dañu wéyal jotaay bu soobee yàlla kon ñu ngi ñaan mbokk yëpp ñu ñu toog te teewlu jotaay bu baax a baax am na solo lool euh, professeur macha allah Barakallahu fikum. Amin ve Maşallah. Öğrenecek mi? Nimko, nimko prezante. Maşallah. Ee, nimko, nimko gene dafaylarda dafa c'est bien résumé. Allah أشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله هيا على الصلاه هيا على الصلاه رحل الفلاح حي على الفلاح bismillah kon professeur mën nga continuer fii ak 10 minutes yi. Euh, jërëjëf Cheikh Bachir kon euh, fase gi am na jàpp nañ ne am na am na ba noppi waaye mooy benn ci xeetu fase yi la am na yeneen ñaar boo xam ne euh, maanaam li koy wuutale ak bii mooy fasem fay li dañ naan yidda ji li feek jeexagul dañuy jàpp ne daanaka soxnaam la loolu moo tax sax charte yooyu yëpp ñu di ko ci wax xam naa day gudd duñ ci avancé lool ndax am na yeneen tomb yoo xam ne mooy gën a am solo ci nit ñi te bii dafa xaw a technique <coughs> euh, léegi nag foofu am na passé boo xam ne batt lañ koy wax bu dog am na boo xam ne nag maanaam baara zaw ji lañ koy wax moo xam daf koo fase ñetti yoon ci benn jataay wala daf koo fase ñu sëyaat mu fasewaat ko ñu fasaat ñu fasewaat ko su boobaa jeex na mënu koo takkaat lu doy baara zaw xam ngeen baara zaw waaye ci fase bi su amee itam lislaam dafa am nu mu ko bëggee dafa am nu ko bëggee maanaam li ñuy wax wa mattiuhunna la alquran wax wa mattiuhunna su ko fasee ba nga xam ne war naa dem seen kër ba ite jeex na na ngeen ko jox ab yóbbal ab yobbal ndax seen diggante ak li fi jaaroon lolu nak l'islam tegu ci nangam lay doon daf ko bàyyi ci euh kaman ala ala al musi qadru wa ala al muqtiri qadru niki ko am wursak ak lamuy def ak ko am wursak ak ci lamuy def deug ngeen seigne touba lettre bobu mu yónnee woon sëñ maam Thierno la ko don wax ci wa keur gi ku nek dan nako jox téeméeri dërëm te téeméeri dërëm 1896 wala avant 1900 boba khalis bu bare bare bare la dama ne leen dañuy wax ne 1914 euh, bëri góob gerte ci la tàmbalee jar dërëm avant loolu matu ko woon lu jiitu nag bëri góob gerte di jar dërëm loolu ñaata la mooy 10 tonnes gerte te fi ne yaakaar naa kemb gerte fi ne egg seen egg na ci 1000 francs wala dana ko jege nga xam day mat 10 millions su doon léegi euh, loolu su jàllee euh, dañu jàpp ne bokk na ci effet yi fase gi waaye am na yeneen effet mooy ki nga xam ne. wala ñaar ñii kii tollu ab diggante wala kii nàmpal lislaam dafa am lum ci digee mooy li ñuy wax prise en charge bi góor gi moo ko yor su ko neexoon sax dañuy wax ne moom jigéen gi dana ko man du ma nàmpal kon fayal ku koy nàmpal mu fay ko te mu war koo yor nag carrément moom loolu itam ci jeexiiti fasa gi la bokk ak itam yërmande goo xam ne lislaam amal na ko jigéen ndax lépp rek daf koo teg ci kaw góor mu war koo toppatoo surtout lu war jëm ci wàllum finance waaye am na ci loo xam ne jar na bàyyi xel mooy lan moo war a sabab nag lan moo war a sabab ak fase dañ ko fàtte woon ci biir waaye lislaam dafa bëgg suñu suñuy suñuy ànd ñu ànd ci njekk suñ demee ba mënatuñu ànd ñu tàqalikoo ci njekk lu ko alquran waxe fa imsaakum bi maaruf aw tasrixum bi ihsaan loolu rek a fi am moo tax nag muy bañ léeg-léeg xor ñooñal dem ba bëggatu ko am na ñoo xam sax dañuy bëgg jigéen gi dem ba moom moo naan bàyyi ma su ko defee ñu man ko teg ñoom seen i condition wala taaduluhunna la alquran wax li tadhabu bi baadi ma aataytumuhun loolu itam lu ci jara bàyyi xel la su loolu jàllee itam ci effet yi ma doon tudd ci en face dama tudd ñaar yoo xam ne dafa ñeel soxna si mooy soxna si su tollu diggante ak soxna si nàmpal mais da nga gis dëgg dëgg dëgg dëgg ne ñooñu maanaam ki tolub diggante moom iddaam dafa jeexagul ki tolub diggante iddaam mi ngi jeex su amee su ko yàlla mayee mucc waaye xam nga ki nàmpal moom nekkul foofu teewul itam ñoom ñaar ñëpp da ngay gis ne li leen liyee mooy doom ji ñu yor te doom ji alquran daf ko moomale sax góor gi maanaam ngir wax ne kon charge yi moom la ko war moo tax mu ne wa alal mawluudi lahu kañu jural doom ji sañ na maanaam war na ci moom ala obligation lay firi rizquhunna seenu dépense wa kiswatuhunna waxaat feneen wa anfiqu alayhinna xatta yadaana xamlahunna maanaam li feeg ñuy am doom yéen a leen war a dundal lu ci toppati fa in ardaana lakum fa in ardaana lakum fa aatuhunna ujurahun fa in ardaana lakum la suñ leen nàmpalalee waxu suñu nàmpalee seen doom ñoom de suñ leen nàmpalee yéen góor ñi seen doom pourtant ñaar ñëpp ko bokk waaye loolu day wone charge bi nga xam ne maanaam l'islam teg na ko ci kaw góor day won day wone maanaam lu wuuteeg léeg-léeg ñiy fustiger leen ci atte l'islam dañoo xamul l'islam ni mu tërale société bi ak ni mu tërale biir famille su ko defee su loolu jàllee nag muy lu am solo lu ci topp mooy ne yemul gone gi dañ koy yor yor ndeyam mi koy nàmpal mbaa ka koy nàmpal ñu di ko fay du caagi ne foofa lay yem li fekk gone gaye ngi fii ba ni muy majeur itam góor gi moo ko war a yor léegi moom ñoom ñaar ñi liñ seqoon ab sëy la sëy bi jeex na waaye ba tey baay bi moom moo war a yor doom ji kon foofu foofu lay tëje ndax léegi ñu taxawal il faut ñu tàqale ci diggante ñaar diggante prise en charge xale yi ak garde ñaar yooyu bokkuñu bokkuñu ay atte prise en charge mooy yor gi ko war a yor dundal giñ ko war a dundal euh, yore am njàngam loolu ay droit la yoo xam ne xale bi moo ko am inaliénable la kenn sañu kenn sañu ko kii mais kan la war baay bi la war su ko mënoon nag ñu doog a xool leneen ndax bor la boo xam da ko war a fay bokkut nag maanaam garde bi ci boppam kan moo war a yor gone yi kan moo war a yor gone yi suñu suñu suñu jógee cib say jigéen gi moo ko war a yor yaay ji mako yor ba ak ñuy man dañ naan la sax suñ demee ba yaay ji am benen borom kër borom kër gi xam nga man na baña nangu ci lolu dañ ko jox yi yaayam nga gisaat manam lolu itam sunu soxna yi euh, surtout sunu mbokk féministe yi war nañu wax fofu kon dafa melni ne ñun dafa jël góor gi te yi euh, jël jigéen tek seen kaw dedet intérêt yi xalé bi lay sammu dafa am fo xam ne bañ fa tollé intérêt yi soxna ci lañuy sammu waye fi intérêt xale bi dañuy sam ndax jëlé ko ci affection ndayam ci jamono jooju mën na am ay conséquences yu bëree bëri dana ko jur mën na ko traîner ba faw itam kon habana wala garde day lu am solo dañ koy tara sax muy top ay jigéen ba mu yàgg lool pour mu dess ci góor gi du yomb ci ay charte yu metti ak itam ay conditions yu metti metti kon loolu lu ci jara a bàyyi xel la dafa bokk ci effet yi maanaam fase ci diggante góor ak jigéen gi euh, Bachirou kon loolu daal moom lañu doon tënk euh, day lu xawa gudd lool moo tax tënk bi léeg-léeg mën naa indi jafe-jafe ba xaw a réeral nit ñi euh, incha allahu taala lu ci dëng rek yaakaar naa ne yéen da ngeen koo gàgganti euh, Cheikh Issa itam mi ngi noonu moom mooy sunu faqih sax nag man fiq ñaar lu ma ci bëgg a wax ak sunu mbokk yi sëñ Cheikhouna sëñ Modou ak yow sëñ Bachir ñu ngi jégaluwaat baax a baax li may war a njëkk a jégalu nag sëñ Bachir mii day sama magum taalibe ca Keer moom Keer laa ko fekk. keer laa ko fekk sama magum taal bi la kon ca keer la ci gën a yéeme mooy kañ ma boole loon sëñ Mahmoudan Fall dafa fekk sëñ Bachir nekk néegam ah kon li ñu boole bari na sëñ Mor Lu mag sëñ Xaadim tam ñoom sama mbokki taalibe yu baax lañ ñu ngi leen ziyaare baax a baax sëñ Mun Njaay Asan sama sang la waaye dafa amul njariñ moo tax du ma ko tudd salaamaaleykum loo xel mbokk yi ni leen waxtaan wi des na ñaari pàcc la woon benn xaaj bi yi nga xam ne moo aju ci wàllu charia moo wéy des na loo xam ne dafa aju ci droit positive bi am na ku ñu ci ñëwal léegi incha allah muy met daabo bu ko defee ñu doog a def tënku waxtaan wi bu soobee yàlla kon ñu jullee ñu ngi ñaan ñëpp ñu toog taaxeerlu loolu jërë ngeen jëf salaamaaleykum ci ci ci baro maanaam avocat la depuis vingt ans ci cour bu dakar kon yaakaar naa ne buñ ko joxee kàddu gi dinañ ci dégg loo xam ne lu ñuy jëri ñun ñëpp la ci fànn boobu soobe yàlla kon maître bismillah ñu wéyal jotaay bi

jëmale ko ci wàllu sëy ak fase man tamit bëggoon naa ci sànni ay xalaat ndax suñu waxee sëy ak fase tudd ci ñaari source maanaam charia ak euh, droit positif droit positif ñu dégg ci code de la famille code de la famille maanaam mooy code bi nga xamante ne moom la ñuy àttewoo fii ci Sénégal quand quand lañ ko commencé à théo, nous avons commencé à théo depuis 1973 madame, le 1er janvier 1973 gannaaw voté à l'Assemblée li wax en vigueur le 1er janvier 1973 lu weesu à ñu code civil français Nous xam Sénégal dëkk la boo xamante ne dañ ko coloniser woon France moo ko coloniser woon seeni loi ñooñu régiroon maanaam code civil boo xam ne ñu ngi koy tuddee sax code ñee maanaam Napoléon moo ko moo ko defarlu woon donc ci loolu lañ doon tënku waaye bi ñu demee ba am suñu indépendance moom suñu bopp ñi fi jiite woon réew mi ñoom sengoor ak ñi fi nekkoon yore état bi ñoo décidé ne dañuy voté suñu code boo xamante ne dafay sukkandiku ci suñuy aada suñuy cosaan ak fi ñu namm suñu société egg fa waaw loolu nag doonoon lu xaw a jafe loo andi jafe-jafe bi mooy Sénégal dëkk la boo xamante ne sooy wax wàllu aada ak cosaan du lu ñu mën a jàpp ne benn aada moo fi nekk ak benn cosaan ay aada yu bari la woon aada yi sax dañ koy méngaleek ay xeet maanaam amoon na ay joola ay séeréer tukulër wolof ak yeneen ak yeneen xeet ak yeneen ak yeneen aada su weesoo aada yi tamit diine yi ñëw am na diine islaam am na diine chrétienne ak tamit yeneen diine yoo xam ne dañu aju ci li ñuy woowee diine cosaan maanaam li ñuy woowee animisme te loolu yëpp dañ ko war a boole ci mbir mi maanaam loolu moo waral bi indi code de la famille am na ay enquête ay étude yu bari yoo xamante ne def nañ ay comité am comité bu ñu sàkkoon tuddee ko comité des options nga xam ne toog na liggéey ay ati at pour fexe ba xam nan lañu mun a defar benn code boo xam ne dina sóoraale lépp lu fi nekk comme aada lépp lu fi nekk comme réalité pour que kenn bañ ci gis boppam sëriñ si dégg nañ leen nitu aada yi dégg nañ leen xalif yi dégg nañ leen bi ñu waxee tamit seeni xalaat ba joxe seeni tegtal bobu nak lako assemblée en 1972 ñu dor ko 73 1er janvier la entrée en vigueur waye code Bobu, ko code consensuel manam code bo dañu j'app ne li nga fi ci Sénégal ci ay xéet ci ay aada ci ay dinañu trouver dinañu ba ci

ci walu code bi manam di bëgg ñu soppi ko Kurel, na qui bu juddu ci jamono euh, suñu ñam natango am ko tudon maître Babacar Niang ñoy Mbaye Niang bu xam doon def politique avocat la woon dénkoon nañ ko ben bu ñu woyé Sirkof imam Mbaye mi ci la itam ñoom dañu japonais, code de la famille bi kat am na lu bari loo xamante ne war nañ ko soppi te soppi bi sax war na jéggi soppi ay article waaye dañu war sax defar leneen lu ñuy ay code du statut personnel code du statut personnel boo xamante dañuy jàpp ne pour jullit la pour chrétiens yi la pour ñeneen la demoon nañ sax ba exemple ne dañu ñu jël comme référence dëkk bi ñuy woowee Égypte ndax xamante ne ñoom xaw nañu def lu nuru loolu waaye lu jar a fàttali mooy soo xamee ku tudd Léopold Sédar Senghor nga xam lan moo doon philosophie am ak jamono yooyu ni Sénégal jëloon comme yoon nga xam ne lu ñu sàkk woon Sénégal doon benn dëkk bo xamante dañuy dawal lu ñuy woowee unité unité nationale nga xamante ne du ñu am féewaloo dañuy boole lépp bokk day boole lépp mais su boole lépp tamit dinañu sóoraale pas-pasu ku nekk suñu gisee beneen wàll bi tamit nga xamante ne ay féministes dinañ ci dugg ñi waaye ay laïc dinañ ci dugg ñoom dañu jàpp ne code bii ñuy woowee code de la famille am na lu bari tamit loo xam ne dañ ko ci war a ndax day mel ni àqu jigéen ñi dafa mel ni dañ ko xaw a salfaañe nga dem ci yenn fànn yoo xamante ne dañuy jàpp ne li ñuy woowee puissance paternelle ñu jàpp ne le fait que ñu jox ko góor ni ko serigne Mohamed doon waxé té jigen bañ ci am wàll lolu ñu japp né discrimination la japp né discrimination la té Sénégal dafa ratifier ay convention yo xamante dañu dàq toute forme de discrimination manam lépp lo xamante ne day jël gor di koy teg ci kaw jigen dañ ko dàq donc suñu démé ba jël ci walu famille y ben article buñu woyé article 277 code de la famille jël dogal ci famille jox ko bay bi manam jox ko ku ki jigen bi amu ci ben ñom nak féministes dañuy def xex qui xamantene ne la ñu moy ñu ba euh, puissance paternelle ñu def ko autorité euh, parentale te autorité parentale boobu lu tax ñu koy sàkku day fexe ku jigéen ki su fekkente ne day liggéey dina mën a bénéficier dina mën a am yenn avantage yi nga xamante ne moo koy permettre muy mun a moom di ñëw di jàppale njabootam waaw loolu yëpp gannaaw mi ngi am ñu gis ne ñi ñuy woowee ay laïc ñi ngi xëcc di woote ñu réformer code de la famille ñi nga xamante ne ñi ngi leen di woowee euh, wàllu charia wàllu wàllu comme ñi ma joxe exemple am na ñeneen ak ñeneen waaye exemple yi ma joxe sànq wàllu ñoom ñi ñu woowee Sirkof ak ñoom imam Mbaye ak ñooñu ñooñu tamit di sàkku ñu soppi code de la famille bi kon code de la famille bi am na lu bari loo xamante ne war nañ ko soo xoolee war nañ ko jàngataat ndax dañ koy soppi suñ ko soppiwul tamit ndax dañ koy euh, réformer maanaam dans le sens de gën koo defar pour mu gën a sóoraale àqu jigéen gën a sóoraale àqu ndaw te gën a sóoraale itamit waaw loolu soo joxee exemple ONG yi nga joxe ay réseau sigil jigéen nga joxe yu mel noonu ñi nga xamante ne ñoom daal ñooy sàkku pour ñu réformer waat code de la famille loolu dina wone ne wax dëgg yàlla fi mu toll nii code de la famille bi jamono ngi dox àdduna ngi dox waaye waxtaan yi waraat na ubbiku pour ñu xool nañ ko defee 1960 ba 1972 pour ñu xool ndax war nañ ko mën a tëggaat ba mu méngoo ak aduna fi mu toll léegi bi nga xamante ne nag dégg naa sama natango Sëriñ Mohamed wax ci wàllu charia lan lañu ñu tëggee sëy ak wàllu passé gannaaw tamit wax nañ tuuti pour lu ñuy mën introduction code de la famille fu mu toll ci Sénégal ndax am na différence charia ak euh, droit positif maanaam li nga xam ne moom la code de la famille tëdd tëgg waaw loolu war nañ ci mën a joxe ay firnde yu ndaw daal sëriñ Mohamed mi ngi tudd sànq li ñuy wooyee ngoro code de la famille mi ngi koy tuddee fiançailles ndax droit positif wax na ci wàllu fiançailles waaw wax nañ ci am na luñ ci euh, fësal waaye li ci am solo mooy dañuy jàpp rek ne du lu obligatoire maanaam mën na ñàkk waaye su fekkente ne am na ñi nga xam ne ñoo fas yéene dencante dañ koy fësal waaye nag mënul weesu at mënul weesu at waaye comme ni nga ko waxee tamit dafa nuru ne ñi nga xamante ne dañu nekk ci ngoro obligation amul joxe xaalis ludul ay cadeau obligatoireul deko obligatoireul dekk obligatoireul te mënul weesu at bi ma waxoon donc day melni ñom ñaar nuru nañ ngoro bi su jexé bañu décider ne dañuy sey manam ku góor ki ak ku jigen ki ci yan anam le sey di am ci walu code de la famille code de la famille dafa japp ne sey suy am faw ñu def lu ñu woyé déclaration lu am solo la ndax état mo organisé wu non faw état contrôler famille ndax ni nga ko waxee sànq noonu la ko suñu constitution tëggee parce que constitution dafa japp ne mënuñu japp ne famille dina am lu ci biir sey manam sey moy li daganal famille góor ak jigen sey moy tax famille am te famille nak wax deug yalla moy baasu société lolu suñu conscience non la ko tëggee waaye déclaration bi lutax mënul mënul ñak moy dañu organiser wu lu ñuy état civil état civil moy Li fexé ba képp ko xamantene sénégalais nga fi nga nek fi nga juddo fi ngay dundou état civil recensé la manam so juddoo dañ la wara déclarer So, euh amé borom kër wala nga am soxna nga dem déclarer ko ñu def ci marge bi ñu wut registre acte de mariage ñu wane ne kat ak diw sey nañ nga xamante ne déclaration bi rek moo koy andi légui kat ci kan lañ koy def ci kanamu ki ñuy woowe officier d'état civil

ku góor ki nangu na ku jigéen ki nangu na mu contrôler tamit ndax ku góor ki âge bi ñu prévoir ndax am na ko mu xool ndax ku góor ki am na ko code bi dafa wax 18 ans su fekkente ne ku jigéen la tamit ñu xool ndax am na âge bi code bi wax muy 16 ans léegi nag am na benn sew-sew sew-sew bi mooy ku jigéen ki su fekkente ne sax atam matul mën nañ ko may dérogation mais loolu président tribunal de grande instance moo koy autorisé mais day fekk ñu def enquête ba noppi donc exception la boo xamante ne faw ñu def enquête ba gis ne kii kat wax dëgg yàlla war nañu mën a def dérogation gannaaw loolu tamit ñu xool li ñuy wooyee càng dot dot bi ñu xool ñaata la su fekkente ne da ngay joxe benn wàll ak beneen bi nga xamante ne da nga koy leb ñu waxe ne montant bii daal dugg na la sa des gàddu nga ko di nga ko joxe ci benn euh, délai bi ñu lay fixé loolu mooy officier d'état civil bi nga xamante ne moom mooy def li ñu wooyee célébration waaye su weesoo célébration boobu maanaam moom fas na sëy bi su weesoo forme boobu am na beneen forme bu ñu woowee constatation maanaam ñi nga xam ne dañuy sëy dem nañu ci jàkk wala dem nañu seen kër wala dem nañu église ñoo xam fas seen sëy ba noppi door a ñëw ci officier d'état civil bi officier d'état civil bi def lu ñuy woowee constatation waaye pour loolu nag dañ leen jox délai wu juróom benn weer six mois loolu su weesoo te defuñu déclaration bi faw ñu dem ci juge d'instance ben pour le juge bi autoriser leen pour ñu dem inscrire sen mariage donc loolu euh, lu mata xam la lolu su wesso amna tamit mbir bo xamantene faw ñu leeral ko ci walu sey ci code de la famille manam moy option tudd nañ âge tudd nañu consentement tudd nañ dot waye option tamit faw ñu leeral ko parce que so ñëwee ci kanamu officier d'état civil bi faw ñi di sëy leral ko mom ndax dañuy nangu polygamie walla monogamie walla polygamie limitée polygamie moy li ñu woowee régime de droit commun maanaam dañu jàpp ne mooy lu normal polygamie polygamie maanaam diggante benn ba ñeent mooy lu normal su fekkente ne da nga jàpp yow ku góor ki parce que góor ki mooy mooy mooy tànn su fekkente ne danga jàpp ne euh, man benn jabar doy na ma benn soxna doy na ma nga fësal ci kanamu officier d'état civil bi ne ko benn soxna lay jël nga signé ko donc ñaari choix ngi noonu ñetteel bi mooy li ñuy woowee polygamie limité polygamie limitée mooy mën nga wax officier d'état civil ne ko ñetti soxna laay am waaye duma ko weesu walla nga ne ko ñaari soxna laay am waaye duma ko weesu loo ci wax rek ñu ñu signé waaye nag dafa am beneen sew-sew bu yéeme bu ci am ci wàll boobu mooy dañu ne la code de la famille dafa leeral nii su dee da nga signé polygamie saa su la neexee mun nga ci génn mun nga delluwaat ne man polygamie laa laa opté woon waaye léegi damay ñëw monogamie ñu nangul la ko waaye soo ñëwee ne léegi euh, monogamie La signé won dama bëgg dellu ci polygamie mënul nekk loolu loolu mom c'est un choix à vie manam so xasse ba dem ci officier d'état civil ñu signal la nga am certificat de mariage ñu né option bi monogamie la yow ya ko tanal sa bop à vie la manam du looy mëna soppi so ñëwé tamit ne dama def monogamie euh, polygamie limitée manam euh, ñett la jëlone ñett duma ko wessu mën nga dem ba mu la neex nga ne léegi wàññi naa ko léegi def naa ko ñaar nga demaat ba ci biir nga ne wàññi naa ko def naa ko benn su la neexee waaye mënoo jógee ci benn dem ci ñaar mënut nekk su fekkonte nag dañ ko limité ñaar mënoo jógee ci ñaar dem ca ñett soo ko limité woon tamit ñett mënoo jógee ci ñett dem ci ñeent waaye yemul foofu lu si gën a xaw a doy waar mooy ni su fekkente ne da nga signé woon monogamie wala monogamie euh, polygamie limite nga sëyoon ak benn soxna nga signé loolu maanaam ku tudd Modou Fall takk ku tudd Penda Diop après Penda Diop ak Modou Fall ñu tàggatoo Modou Fall suy signé beneen. Euh, beneen mariage suy takkaat beneen soxna monogamie boobu mooy ñëwaat amul ne déet man kañ monogamie rek laa signé woon mais lii ak pend loon léegi maa ngi takk léegi ku tudd faatu Diop déedéet bi nga signé woon monogamie ak pend moo lay topp sa ngiiru dund doo ko soppi waaw loolu lu jara lu jara lu jara leera la daal léegi mën nañ ci xalaat lan moo waral loolu ndax dama yàgg deg ay nit yo xamantene té lolu xamna seigne naa Mohamed ak imam yi mun naa leen ci laaj yu ñëw ni dañu dem ci kanamu officier d'état civil ñu signé monogamie xam sax officier bi moom moo moo moom moo mariage ñu signé monogamie biñ ko signé ba nopi jamono dox ñu sëy dix ans fukki at fukk 20 euh, vingt ans jamono soppeeku ñu dem xam nga fii ci officier bi lañ demoon mu mu mu fasal leen sëy ñu signé monogamie ñu mujj dem ci benn jàkk jëlaat fa beneen soxna liñ si jublu mooy soxna soosu mën nañ ko bañ a sax ñëw déclaré léegi soxna si nga xamante ne moom moo signé woon ak ku góor ki monogamie bañ loolu ne ko yow monogamie lañ signé imam ñëw ne à mon droit parce que l'islam reconnaître na monogamy, monogamie polygamie le signé donc so so soo pas. monogamie bi ko ci yoon loolu xawma lu ci wax bi ngeen di signé monogamie dafa da nga engagement parce que condition yi nga xamante ne nañ ci mais dafa bëgg annoncer benn condition pour benn cause de divorce parce que article 166 dafa wax lan moo mën a andi divorce maanaam sëy nan lañ ko mën a su fekkente ne da nga wax sa soxna loo xamante ne moo tax mu nangu sëy ak yow nga dem ba ci biir nga xàcc dellu ci loolu mën na tax suy ñaan euh, euh, divorce ñu may ko ko te boobaa moom mooy am dëgg jàpp naa tamit. xamna yeen yen ma ci ep xam-xam japp na ni ci kanamu suñu borom engagement boo jël ci kanamu nit yi ci kanamu suñu borom yaakaar na ne lolu du ay tiaxan parce que yow soy signé monogamie da nga gëmloo ki ngay signé monogamie ne ko ci yow dong la yem serigne mohamed mi ngi doon junj tamit sank li ñuy wooyee ay mbirum tak suuf ndax li am solo moy ci walu sey

six mois jot demoo ko déclaré sëy bi euh, ñu japp ne sey bi da nga wara dem ci kanamu juge mu autoriser la pour nga ñew ñu doora déclarer sa mariage six mois yoy tamit wessu nga tok ñaari at ñetti at defoko téréwul terewul ne bi sey bu sey bu dagal la bu normal la ci kanamu yoon légui ban problème moy am Soy ñew ci kanamu attekat ngeen ne da ngeen bëgg ñu tass sen sey ngeen bëgg divorce kii di àtte danaan la balaa ngaa divorcé il faut nga sëy ba noppi ci kanamu yoon maanaam da ngay dem wuti certificat de mariage ba noppi loolu mën na leen jëlal temps bu bari waaye faw certificat de mariage bi ñëw balaa àttekat bii di àtte ci divorce bi di ci di ci àddu loolu dafa am lu am solo lu muy feeñal wàllu état civil lépp lo xamantene dafa am lu ñëw ci dundu doomu adama ci walu état civil information la biñuy am manam su fekkente ne da ngeen sëy dañ koy am comme information su fekkente da ngeen fase dañu am information su fekkente ne fase bi amna il faut que ñu inscrire ko en marge de l'acte de mariage bi wane ne ñii kat ñoo doon sëy waaye fi mu toll nii jàpp nañ ne fase am na ci lañ lay mën a jox lu ñuy woowee certificat de divorce mais certificat de divorce bi aussi lu mën a poser problème la problème bu metti lay lay jur daal dinaa ci dellu si léegi maa ngi doon wax sànq ci wàllu say yorin beeg yu demee noonu suñu mbokk jigéen yi dafa am lu bari lu ñuy eh, ñaxtu ci li code de la famille jox góor parce que New dañu japp ne mom moy euh, chef de famille chef de famille chef de famille bi mu doon tamit mo tax mom mo wara tan le domicile conjugal Manam, su fekkene da ngeen sey fa ngeen di wara nek ku ki mo koy tan wa lolu nak mu am lu mu feñal jigen ñi xaw nañ ko ñi ñi woy féministe

bi nga xamante ne gis nañu ne ci wàllu code de la famille góor bi moom mooy tànn kër gi loolu da ngay gis ne charia lam ca wax xaw na méngoo ak lii parce que sànq sëñ Mohamed mi ngi koy mi ngi koy leeral ne su fekkente ne da ngeen di wax lañuy woowee fase baatu fase mu ngi tudd surat talaq la yaakaar na mu ne jigéen bi bu mu génn ci këram maanaam waxul ne jigéen bi bu mu génn ci sa kër yow góor gi waaye bu mu génn ci këram maanaam kër gi kon day mel ni këru jigéen ki la waa léegi beneen problème dafa am problème bi mooy lan mooy am na lu ñu wooyee fase loo xam ne ñun suñuy aada dañ ko saxal code de la famille dàq ko maanaam soo koy tekki day indi répudiation maanaam jigéen joo xamante ne tey bi nga nekkee ni may fii am na koo xam ne mi ngi bàyyi soxnaam mi ngi togg reer mi ngi togg ndogu waaye su maytul suba balaa balaa ngoon am na lu ñu jote ba balaa ngoon soxna si ñibbi na këram ndax fase na ko ne ko demal loolu lu ñu yàgg gis la te loolu code de la famille mayewu ko islam itamit mayewu ko ndax ci lima déggee ak ni ma ko jote jote saytu tuuti gis naa ne islam dafa wax ni su fekkente ne da nga da nga fase sa soxna maanaam réfugié baatu réfugié maanaam fase da nga koy bàyyi ci kër ga da nga koy may idda mais doo leen jaxasoo su idda bi jeexee nag ngeen xool indi ay témoin su fekkente ne da nga ko bëgg jëlaat jëlaat bu rafet walla mënatoo ko jël témoins yi ñëw mu doon tàggatoo bu rafet loolu la islaam wax surat talaq lu ko waral mooy su fekkente ne yow soxna si bàyyi nga ko fa mën na sax am cofeel ju daat waaye suñu code de la famille leneen la wax dafa ni répudiation moom fase moom amul fase amul

yow jigéen bi ku góor ki tamit lii képp moo mën a tax nga dem ci kanamu yoon pour demander ñu fasel la sa soxna parce que juge mooy prononcer divorce code de la famille moom loolu moom du ci dellu cest di que sooy def demande divorce même su fekkente ne sëy bi amuloon kayit bu ko firndeel amuloon sax kayit maanaam sëy ngeen fukki at amu leen woon kayit soo leen bëggee tàggatoo boobaa da ngeen di dem door a kayitu sëy dem ci àttekat bi tribunal d'instance nga def demande soo leen defee demande ñëw procédure bi tàmbali àttekat bi convoqué leen mu am lu ñuy woowee tentative de conciliation maanaam da leen di jéem a jubale ak loo leen mën a jote boobaa su fekkente ne sax yéen am ngeen ay avocat su leen di attekat bi di jéem a jubale avocat yi sax du ñu dugg ci salle bi attekat bi la ak ñaari euh, waaye dencante tey maanaam da leen di déglu laaj leen lu xew jéem a waxtaan ak ñoom jéem a xool ndax mun nañ leen jubale su fekkente ne jéem na waaye antuwul mu door a nag tàmbali li ñuy woowe la phase contentieuse boobu nag ci lañuy tàmbali dugg ci wàllu euh, fase bi ni ñu wooyee divorce maanaam te lu ko lu ko lu ko wuteel ak li sëñ Mohamed di wax ci surat talaq mooy ba ñu toogee ci ci idda bi jéem a jubale ba doxul ñaari témoin rek ñooy ñëw témoin ci góor témoin ci jigéen ñooy ñëw ñoo xamante ne am na ni ko alxuraan waxee nii la ñu war a mel ay nit yu jub nit yu nit yu wóor ñu ne ah gannaaw sëy bi mënatul dem donc dañu dañuy dañuy tas sëy bi waaye su dee code de la famille su ñu gisee ne sëy bi mënatul dem tante na concilier jéem na leen jubale doxul boobu nag la contentieux bi di ubbiku maanaam boobu la xëccoo bi di tàmbali ku nekk day xëcc di jëmale sa côté maanaam ku góor ki su fekkee da ngeen am ay doom moom day jéem a wane ne ah soxna si kat moom moom tooñ mooma ma eh, ñàkk wormal moo ma saaga walla moo def lii wala moo eh, moo def lu ñuy woowee abandon domicile ah indi nag ay cause walla ku jigéen ki ñëw tamit di di di di wane ne eh, ku góor ki toppatooruma daf ma daf may troxal walla daf may dafa def lu ñuy woowee injure grave te ci wàll boobu li taxoon ma joxe exemple fase bi baatu fase soo ne soxna fase naa la demal nga ñibbi sa kër ba nga wax ko kaddu bi su jibee soo ñëwee ci kanamu àttekat bi baatu fase boobu dañ koy jàppee ne injure grave la maanaam saaga la ci wàllu baatu fase fase naa la saaga la donc saaga boobu suñu ñëwee ci kanamu àttekat bi su fekkente ne lu am la rek ba ñu ba ñu ko yow suñuy eh, até, yow yaay am tort kenn du la jox dëgg mën nañ li ci tek tamit ay daan mën nañ li ci tek ay daan mën nañ li ci tek ay li ñuy woowee dommage intérêt parce que ñaar mu mun am soit ku góor ki mo togn wala ku jigen ki mo togn donc su àttekat bi di di àtte d'Anan, divorce au exclusif de l'époux wala au exclusif de l'épouse wala au tort partagé maanaam day jàpp ne ñoom ñaar daal kenn toñul sa bopp dañu mënatul nekk rek mais li ca wóor mooy àttekat bi moom tant que am na motif am cause bu leer boo xamante ne tegal nañ ko mën na prononcer divorce ki nga xamantene nak mo fa andi borom këram wala wala wala soxnaam su fekkente ne macha allah macha allah waaw macha allah naama xanaa ma nuyu nuyu sëñ Xaadim si la rek nga xam ne waaw suñu kilifa la suñu mbokk bu baax la macha allah jërëjëf maa ngi lay ziar baax sëñ Xaadim donc ñu ngi tolloon ci wax ci wàllu décision au juge bi nga xamante ne li mën a mooy su fekkente ne dafa amoon ay ay ay ay xale sànq sëñ Mohamed mi ngi koy leeral ci wàllu islam am na fuñ ko fuñ ko nattee xale bi ay yaayam moo ko mën a yor su fekkente ne yaay ji mën a ko yor ñu jox yaayu euh, seen seen yaayu soxna si waaye fii moom si code de la famille la ñu jàpp dañu ne ku góor ki suñu gisee ne moom moo mën a yor xale yi attekat bi daf ko koy jox suñu defee enquête gis ne ku jigéen ki moo mën a yor xale yi ñu jox ko léegi am na sax ay li ñuy woowee ay AMO ñoo xamante ne la attekat bi xam nga dossiers yi ñuy am dafa bari léegi su fekkente ne jotam mayu ko mu xool dëgg-dëgg mbir bi nu mu demee xool ndax ku góor ki su ñu euh, tasee sëy bi ni muy dundee ak euh, fi mu nekk ndax suñ ko dénkee xale yi dina mën a yor xale yi yor bu rafet ñoo ñu defal ko enquête suñu paree ci loolu mu yóbbu ko ci jigéen ki def enquête boobu après ñu def benn euh, rapport suñu defee rapport bi indi ay conclusion ne ko góor ki kat gis nañ ne euh, fi mu dëkk ak ni mu mel ak li ñu def étude daal gis nañ ne kii mën na yor xale bi wala mënu ko yor wala ñu def ko ku jigéen ki ne ko ku jigéen ki kat li ñu gis mooy wax dëgg yàlla kilifa la te mën na leen yor boobaa nag su fekkente ne dañ ko jox ku jigéen ki te ku jigéen ki amul revenu maanaam liggéeyul tribunal juge bi dogal benn montant li ñuy pension alimentaire pension alimentaire boobu nag day tax ku jigéen ki euh, di mën a yor ay doomam mais pension alimentaire bi soo xoolee du pour du pour ku jigéen ki pour ay doomam la yi muy yor moom lenn la mën a am mooy su fekkente ne dañu jàpp ne divorce bi moom moo tax mu am ñu teg ci moom daan ku góor ki condamné ko à des dommages et maanaam boobu dootul doon lu lu ñuy woowee pension alimentaire dommages et intérêts lay doon maanaam dañ koy teg lu nduroog amende boo xamante ne dañ koy fay ku jigéen ki yi saay tamit suñu condamné ku ku jigéen ki dañ koy teg daan wax xaalis bu mu war a fay ku góor ki waaw loolu tamit mën na am comme tamit ku jigéen ki su fekkente ne xale bi nu mu ndaw ndaw parce que ni nga waxee sànq ci islaam mais yi saay nga gis kaa yoo xamante ne ku jigéen ki nu mu nu nu xale bi ndaw ndaw suñu gisee ne kii mënul yor xale bi ndax ni muy dundee ak fi mu nekk ak lu ñu jot a taataan ci moom melokaanam mën nañ ne ah kon nañ ko dénk ku góor gi donc loolu tamit euh, taxawaay boobu taxawaay bu àttekat bi di am la léegi toutal sank sànq maa ngi doon wax waxi inscription manam so fekente ne da nga euh, am jugement de divorce suñu àttee suñu joxé firnde tay ñu ngi ñu ngi euh, le 30 mars 2024 su fekente ne dañu àtte tay 30 mars 2024 ku góor ki walla ku jigéen ki su fekente ne lañu ñu àtte nangu ko def appel manam day jël dossier bi djébal ko benen benen euh, tribunal tribunal bobu tamit su jëlé dossier Bobu. atté ba nopi d'accordul mom ku jigéen ki walla ku góor ki d'accordul mën nañu def lu ñuy pourvoi en cassation pourvoi en cassation moy lo xamante ne yaakaar naa ne sénégalais léegi euh, ñëpp <laughs> xam nañu <laughs> pourvoi en cassation xam nañ cour suprême ci walu politique pour en cassation ben recours le, ni ñuy recours extraordinaire madame. Moi, dossier bo xam dang koy djébal ño xam ben courrelu atté bo xamante ño gëna kawé a liñ ci djublu du pour du pour ñu wat du pour ñu wat parce que so défé appel rek da nga japp né liñ ma atté baaxul donc ki nga koy moy euh cour d'appel su fekkente ne ci walu sey la nga xamné tribunal d'instance mon compétent soo fait appel tribunal de grande instance moy, moy attewaat donc foofu la yem so soo jàppee ne attekatu tribunal de grande instance le mot atte tamit doyuma mën nga ko djébal cour suprême def pourvoi en cassation légui nak coow dafa am ci li lu tax coow am ci moy loi organique bi créé cour suprême loi bi tax cour suprême am dafa wax dafa am lu mu wax ci walu état ci walu ci walu sey ak ci walu divorce dafa am ay matières yu mu cité mu ne ci matière yi loo xamante ne daf ci bokk dafa ne su amee pourvoi en cassation l'appel est suspensif maanaam loolu lu muy tekki mooy soo amee sa soxna euh, yow suma ma joxee exemple polygamie moom ngeen signé woon damay joxe exemple daal bi nga ko yóbbu tribunal pour ñu def euh, divorce ngeen nekk ci procédure boobu donc euh, séparation de corps am na nekkatu leen après nga def appel yow bi mu amee décision nga def appel soo defee appel tant que yow appel bi mi ngi daw moom soxna si amul sañ-sañu sëyaat parce que buum bi bi doggul amul sañ-sañu sëyaat yow ko góor ki gannaaw polygamie nga siñe su la neexee nga takkaat ñaar ba ñett su fekkente ne pourvoi en cassation am na tant que pourvoi en bi tamit jeexul puisque ci wàllu sëy la dañ ne la tànk pourvoi bi jeexul soxna si amul droit sëyaat maanaam loolu lu muy tekki maanaam mën nañu toog tey comme li ma la ko waxee mën nañu toog 30 mars 2024 ba 2027 maanaam fi leeg ñetti at mën nañ toog ci benn dossier boo xamante ne yow ku góor ki amaat nga yeneen ñaari soxna ba ñett moom soxna si mënul sëyaat tant que cour suprême bi parewul ci àtte bi mënul seyaat su seyaatee ku góor ki mën na ko toppee bigami ak adultère maanaam dañuy weesu léegi tribunal civil yi léegi tribunal pénal lañ jëm léegi lan ngay gis loo xamante ne lu ñuy teg suñu bët la mooy dañuy gis euh, ku góor koo xamante ne dina tàggook soxna takkaat moom soxna ba takkaat beneen soxna waaye yëg soxnam si mu baye te dossier bi mu ngi cour d'appel mu ngi astaghfirullah mu ngi euh, tribunal de grande instance wala cour suprême mu yekne soxnam si ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy tak ba sangam mu yónnee fa huissier de justice yónnee fa huissier de justice wa lolu goor yi gis nañu koy def waxuma ko pour juger leen wala pour blâmer leen mais gis nañu koy def légui suñu amé constat bi huissier de justice bu ñew leeral ne soxna si nga xamné mo moo ak euh, serigne nangam bés sangam mi ngi sëy ak nit ku tudd nangam wa suñu amé constat bobu dañuy dem ci juge pénal bi koku defal leen procédure ñu top soxna si pour bigamie ak adultère manam adultère moy lepp lo xamantene soxna si sekk na ko euh, euh, borom kërëm dañuy japp ne njaaloo la waaw te loolu li ma ci gis yaakaar naa xawoon naa ci wax ak Serigne euh, Mohamed euh, am na loo xamante ne suñu borom ak yërmandem ci wàllu diine am na loo xamante ne euh, dafa mel ni rafetlu wu ko dafa mel ni kuy jàjj góor yi di leen di wax ne soo leen di soo leen di soo leen di tàggatook seen i seen i soxna bu leen leen téye ba leen di lor muy jur lorange ci ñoom bàyyi leen ñu génn dem ndax délai bi nga xamante ne mooy idda idda bi su fekkente ne mat na ñaari témoins yi ñëw ñu gis ne mënatuñu jubo ñu ñaanalante ku nekk dem ku góor ki wuti borom kër ku wuti jigéen ki wuti borom kër waaye ñun suñu organisation code de la famille fexe na ba du loolu lañ ci jublu code bi du la ci jublu waye loi day won yiisaay ay ay insuffisance ay insuffisance yo xamantene suñ ci waxtane xalat ko ci lañuy ñuy gis ne li war nañ ko mëna réformer code de la famille wax deug yalla euh lu bari andi nañ ko ci ci walu diiné ndax yeen ñëpp xam ngeen ne euh kilifa diiné yi am nañ ci taxaway bu bu yaatu biñ koy biñ koy def en 1972 waaye lu tàmbalee 1960 la ba 72 joxe nañ ci seen i xalaat joxe nañ ci seen i tegtal participer nañ ci lu bari biñ koy voté 1973 ba léegi ni ma ko doon junjee sànq am na ay kuréel yoo xamante ne yëngatu nañ pour wane ne dañu bëgg ñu demee ci benn wàll maanaam kuréelu.

waaye ndax su fekkente ne da ngay sëy dañuy xool sax signes yooyu pour mën a maye jigéen wala déet ñun ci suñu code de la famille 16 ans bi mooy jigéen 18 ans mooy góor waaye ci islam ñëpp xam nañ ne problème boobu amu ci léegi nag fi mu toll nii am nañu ay kuréel yoo xamante ne taxaw nañu taxaw boo xamante ne te Sénégal daf ko ratifié wax dëgg yàlla xam ne dañuy contrôler dañuy tere xale boo xamante ne Euh, amoo âge majeur pour ñu lay maye te wax dëgg ñu ngi ciy taxaw ñu ngi ciy xeex ñu ngi ci ñu ngi ciy joxe ay mel ni kuy euh, li ñuy activisme pour euh, lolu baña ñu génne ko daal waaw léegi beneen fànn bi ñu bëggoon jéxalé suñu suñu kaddu moy revenir tuuti ci li ñuy wooye puissance paternelle puissance paternelle film tolni toll actualité la actualité la ndax ñi ngay dégg comme association féministe yi euh, ñi ngi ci wax lu bari article 277 code euh, de la famille moko wax mais dañu jël góor melni ni ku ko jox ay responsabilité waaye avec dafa mengo ak li charia li diine li alcorane tek Euh, sëñ Mohamed mi ngi ko doon wax sànq dañu jël góor teg ko maanaam pas góor mais borom kër dañu teg ci kaw soxna waaye wutal ko lay lay bi mooy dañu jàpp ne euh, li nga xam ne moom moo jëm ci ay dépense kilifteef bi yëpp dañ ko ko dénk moom responsabilité la responsabilité la léegi gannaaw moom loolu responsabilité la kon moom la ñuy désigner comme kilifa Souvent, weesoo loolu nag du walu discrimination du walu euh, fitnal du walu leneen lu rek organisation la bo xamante islam non la ko tegee légui ñun suñu wal ñun suñu xalaat ci liñu ñu wax ndax ay sénégalais lañ ay juristes lañ gannaaw problème yi posé wu na te leer na leer na ni lu bari nduru na lu opposé islam charia ak li ñuy woowee droit positif ñii ñi ngi xëcc di dem ne ñee ñi ngi xëcc di dem ne maa ngi tudd sànq ñi ñuy woowee ñoom Sirkov tudd ay imam mbay ñaa dans le temps avocat bi tuddoon maître euh, Babacar ñaa yàlla na ko yàlla yërëm jotoon na ci jouer rôle xawoon nañu indi ay proposition proposition yi jotone nagn ko andi ndax ci délai yu sori ñom sax touché won nañ ci doigt n'est on nañ li war nañ ko mëna soppi ndax jamono ji nga xamantene dañ doon sax ci walu tubab répudiation li régulariser répudiation régulariser divorce pour délai yi bañ a Vous voyez, daal waaye la ci am moy défé une proposition comme nima l'ai ko non seulement de réformer mais de créer à la place du code de la famille le woyé code du statut personnel joxé référence comme Égypte mais créer lo xamante ne ni pour les la pour chrétiens ni pour les chrétiens. dem nañ sax ba djébal ko président de la république ba won maître Abdoulaye Wade il y a le Samo. Oui, à l'époque Abdoulaye Wad, Wade dafa leen xamal euh, d'accord avec la réforme boobu dañu sàkkoon ci mu def projet de réforme pour indi code du statut personnel mais Abdoulaye Wade dafa leen non seulement d'accord ci mais suñu demee tamit ba assemblée ñoom euh, duñu soutenir ce ce projet donc looloo le problème boobu ba fa lañ ci toll dal waaw donc léegi lan moo war a am ndax dañu war a réformer ndax dañu waraat saytuwaat mbir yi ndax dañu war a toog waxtaan comme niñ ko doon defee ba 72 ndaxte jot na am na yeneen tendance yu commencé di gën di feeñ ci wàll boobu nit yaa ngi gën a wone seen seen seen seen seen seen bëgg diine dund sen diine dund sen pas-pas waye lu bari euh, code de la famille bi japp nañ ne je dis bien japp nañ ne dalen ko xagn ñi tamit nañ ne code de la famille bi dafa xawa a pour gëna respecter ay protocole ay charte ay yohamne xamne jigen lay de Maputo ay convention pour euh, l'interdiction de, toute forme de discrimination à l'égard des femmes donc loolu war nañ ko donc ci ñun suñu rek ñu ci ba gis lu pour sénégalais pas-pas euh, euh, bëgg-bëgg ci waaw kon Mohamed Imam sëñ Xaadim yaakaar naa eh, loolu daal laa ci bëggoon indi comme sëñ Bachir ah, jërëjëf macha jërëjëf eh, jërëjëf Daabo eh, jërëjëf sëriñ Mbàkke Muhammad exposé bi am na solo lool lool yaakaar naa ne kenn ku ci nekk ci ñun jàng na fi ay mbir yu baree bari xam naa pour tënk ko rek ngir ñi nga xam ne sax xëy na dañoo dabe duñu en résumé wax fi wax ji jëmoon niñ doon waxtaane ci diggante sëy ak fase ni ko charia tërale ak sunu droit positif bi niñ ko tërale xëy na fi ñu lëkkaloo ak fi nga xam ne kenn ku nekk dafa dem ak essayer ba mën a gis daal solution boo xam ne euh, ñun ñëpp danañ ci gis sunu bopp rawatina jamono ji ñu toll nga xam ne nit ñi ñi ngi tàmbali di gën a am daal jàng jëm ci seen diine bu baax a baax bu ñu ñëwee ci wàllu sharia sëriñ Mbàkke Muhammad dafa leeral ne doomu aadama dafa war a dafay war a des te des gi mu fiy des sunu borom da ko organiser euh, ni mu ko organiser mooy euh, da ko yoonal mooy baqaa u naw bi mu waxoon yàlla dafa namm espèce doomu aadama des fii kon ni mu koy yoonale mooy si wàllu sëy

képp koo xam ne day ngoro kenn keneen ku yëg ne kooka ma ngay ngoro diw yow bu sa xel demoon foofa it na nga téye sa tànk ba xam ndax foofa fu mu jëm kon loolu lislaam organisé la kon loolu tam lu ñu war a bàyyi xel la su yàlla dogalee tamit sëy am sëy boobu moom lañ yoonal liñ ci yaakaaroon mooy eh, ak dal ku góor ki dal ak cofeel seen diggante waaye léeg-léeg tamit mën naa dem ba doon coono bu doonee coono lislaam lu ne indil na ko solution bu coono amee lañ yaakaaroon su amul problème am solution bi day mujj doon fase rek fase nag firiwul xëccoo firiwul xiiroo ak ŋaayoo waaye aw yoon la woo xam ne suñ si yegsee solution lay doon ci jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ am fase yooyu itam lu lu ñu war a bàyyi xel la bàyyi nañ lislaam bàyyi na ko xel moo tax du nit ki sax nu ko neex la koy defee bu def da ko war def ci façon bi ko sunna bëggee moom la ñu tuddee sunni dama fase goo xam ne sëñ Mbàkke leeral na ko maanaam nit ki buy fase soxna waru ko fase ci ñàkk laab ci la ci laab la koy fase si laab gum jaxasoowul ak comme niñ koy waxee ci téere fiq nga xam loolu lépp kon lislaam làq na ko foo bala faa nit yegg bu toujours processus bi day bala mu ci yegg mën na am xelam so soppiku bu bu yàlla dogalee tamit euh, fase am raja yi am na maanaam fase moo xam ne nit ki dana mën a toog këram jël idda dégg nga ñetti laap wala ñetti mbërëk euh, niñ koy firee xoolaat boppam ku góor ki tamit xoolaat boppam mën na am buñ juboowaatee sax day gën a neex loolu yëpp lislaam da ko da ko indi comme ay ay jumtukaay am na it loo xam ne may na ko ku jigéen ki mooy lu ñuy tuddee alxuloo maanaam summikoo la xam ne ko jigéen ki bu demee ba dernier recours tamit amatul benn pexe te lii tamit kenn mënu cee wéy te ku góor ki nanguwul bu boobaa lislaam may na ko foo xam bu fa jaaree dana joxe lañ ko joxoon wala lañ dëppoo mu daal moom boppam kon day mel ni lislaam masalatu yii yëpp euh, indi na ci ay tontu yu solo ba ci li ñuy tuddee ñi nga xam ne dagan nga leen a takk ak ñi nga daganul takk ni ko lislaam organisé lépp ngir sàmm askan ñoo xam ne deret moo tax mënoo leen a takk seen seen sa relation ak ñoom dafa jege ñoo xam ne wàllu gorowoo moo tax mënoo leen a takk ak ñoo xam ne wàllu nàmpal ngeen séq moo tax mënoo leen a takk yooyu yëpp yu ñu war a bàyyi xel la te lislaam tamit noonu la ko indee ba ci can gi tamit lu am solo la wax ci can gi nee na can gi amul lu lu gën a rëy maanaam amul fu mu yem ci bari waay xëy na bu dee yaakaar naa ci ngiru imam malik am na lu gën a tuuti waaye lu gën a rëy moom lu xol attan rek mën na ko waaye ngir yërmande ak euh, organisation ak bu sëy amee tamit ku góor ki du dem ba yàgg jote di am muy wax ku jigéen ki ne ko lu ne laaj ngeen laaj ngeen ma ko yu mel noonu lislaam si la daganal tamit lu ci nit ki man tem jàppandi war nañ cee mën a may ab sëy ba ci sëriñ bi bi mu fi nekkee Cheikhul Khadim am na lim yum ci joxe woon te lam ca waxoon tamit lu yanu maanaa la mooy euh, ku ko génn it lu la ci fekk yaa ko def te ku ko gëstu tamit da gis ne koo génn dara mën na la cee fekk kon daal nañu xam ne yooyu yëpp ñëw na fi sëriñ bi indi na ko euh, te fase moom moom ni mu ko tuddee dernier recours la ko sëriñ la ko tuddee moom maanaam euh, moo fi sës moo fi sës feek pexe ngi am kenn waru koo def ndax sayit e, e, xiwaama da cee am ak taa ñaari baat yooyu la sëriñ Mbàkke Muhammad taxaw insisté si bu baax ku góor ki moo moom kilifteef ku jigéen ki dafa war a topp ku góor ki loolu loolu la ko lislaam tërale kilifteef gi nag euh, xëy na euh, li ci yanu maanaa xel nangu ko loolu lay wax li yanu xel nangu ko kilifteef gi foofu la jëm rawatina ci diggante li soxna si di woddoo liñ koy dépassé ci wàllu dëkkoo gi wàllu fañ koy dëkkal loolu ku góor ki la war xëy na loolu moo tax ñu jox ko xiwaama ñu jox ko kilifteef ndax ñaar bu ñu àndoon kenn jiitu te ñaar ñi bu ñu àndee ku ñu waxoon sax gëmmal laal kiy jiitu ku góor ki lay laal ndax xelam foofu la jëm kon day mel ni li lislaam wax foofu yanu na maanaa lool lool ci ci ci ci bunt boobu tamit euh, bi ñu ñëwee nag ci ci euh, wàllu fase tamit sëriñ bi wax nga lu am solo mooy wàllu xale bi ku koy téye léeg-léeg njaboot day am si sëy bu amee si sëy lislaam moom tëral na ko ci ku jigéen ki moom mooy priorité mooy priorité yaakaar naa feek sa yaatul ku lu yonente bi waxoon ka ko jàmbatoon ne ko borom këram dafa bëgg a jël doomam yonente bi ne ko anti axaq bi axaq bihi maalam tankehi yaa ci gën a yey feek sa yaato ndax boo sa yaatee mën naa am yittey e, borom kër gu bees gi lay gën a tal ci yittey doom ji yooyu yëpp kon lislaam yitte woo na ko toujours sax ku góor ki mooy mujj a jot xale bi feek ranguñu jigéen ñi daanaka jeexuñu kon loolu it euh, xam naa ne euh, ay euh, xalaat la yu am solo Serigne Mbacké ñi ngi lay sant di la gërëm ñëw nga ci ci wet yu bëree bari buy ñëwee nag si si droit positif droit positif bi day mel ni am na poñ yu bëri nuroo na ko sax ak ak ak ak charia ni mu tëralee wàllu sëy ak wàllu wàllu fase waaye dafa am nag ay yu fondamental yoo xam ne nii moom yaakaar naa loolu mu naan dañoo war a toog xoolaat ko du ci mën a ñàkk maanaam euh, bu fekkee ne ay jullit lañu jiite ñu dañ leen a war a jiite ci niñ ko bëggee lam mujje sax laay njëkkee mooy comme misaal bi mu joxe ci Égypte boo fa demee ñoom am nañ seen lu ñu tuddee xaanuun axwaal saxsiya lil muslimin xaanuun axwaal saxsiya li xayril muslimin jullit ñi am nañ seen code pénal boo xam ne mooy lijjanti wàllu sëyeeg fase yi ayu si yooyu ñi dul jullit te defal nañ leen lu mel noonu day melni kon li nga xam ne jullit ñi Sénégal masalan liñ bëgg euh, dafa wara a ak li ni ni ni niñ ko xamé ñom sen code dafa wara a ak ni leen ko lislaam kii defalee euh, santé su lolu amul jafé jafé yi am moy yu melni yum wax euh signé benn soxna euh, waaw daal ne bu ma deexee dem ci jakka ja ko xam duma ko def ci kayit ki na ko def ci kayit kële duma ko def ci kayit lolu sax amna na question buma ci def daan ne xamuma nag si wàllu sëy ndax dafa interpeller imam yi ci loolu nañ xool ki nga xam ne dafa waat ne kenn lay takk ba ci yàgg mu dem ci jàkka ja wut keneen koo xam ne wutalu ko këyit lu ci lislaam wax yaakaar naa tamit am na lu ñu tuddee churut saxiixa ak churut faasida si wàllu sëy am na charte yu wér ak yu wérul yu wér yi masalan soo ne soxna si danaa la takk waaye du ma la dëkkal sama kër yaay dama lay wutal sa këru bopp ñooy charte boobu wér na mom manam boko takke takkee waroo ko yóbbu sa keur yaay kon keur gi ko wax nga ko war a waye bu la soxna si ne ah dina nangu nga takuma waye bu dooma wutal wujju nak ci misal bo ne ko waaw charte bi werul mota charte bi werul dafa am benen texte bu ko mag bu ko upp doole kon boko takke ci lolé yit bu bo wuté wujju manam wax nga engagement ba nga jëloon dotu konté légui nak xeyna ñun non lañ jànge won waye nak nañ ko xolaat ba xam comme nga <laughs> yi ñu xool ba xam euh, ak bu ëllëgee bu ñuy def suñu code pénal euh, ci loolu nuñ koy doxale nuñ koy doxale ba xam euh, loolu moom si si maître Dabo lañ ko lañ ko kii si moom lañ ko déggee dañ cee commenté rek joxaat ko xëy na Serigne Mbacke mi nga xam ne moom moo yoroon wàllu woowu si li ma déggul tamit si wàllu code pénal mooy nombre fase yi ndax bu dee si lislaam dafa tënk fase ci ci ñett maanaam ñaar ñetteel bi talaaq baa in la maanaam ku góor gi sañatu la takk soxna soosu lu dul soxna si dafa am beneen boroom kër boo xam ne day am mboolem àq yi ku njëkk ki amoon ba bu ca noppee ku ku góor ku njëkk ki bu nekkaatee prétendant ñëwaat loolu dama xamul nag droit loolu inséré wuñu ko ci code de la famille waaw waaw dama xamul ndax yéen dugal ngeen ko wala déet ndax ndax ndax l'islam dugal na ko hmm? si fase non su fekkee da mun am droit seet mais soo ko fasee. Eh, waaw xam naa xam naa ñiy déglu sax laa gënoon jublu. Mhm. ñoom ñu jariñoo ci dara ci loolu. ndax xam nga dafa am ku soxna su ñëw si yonent bi jàmbat ko si. Eh, aaya boobu ak talaaqu marratan fa imsaakum bi maaruf aw tasrif bi ihsaan ne ko sama boroom kër daal daf maa sonal téewuma bàyyiwuma mhm. bi ñu ko laajee tamit bañ xuloo dane ko du ma la téye du ma la bàyyi ñu ne ko ban système ngay defee loolu mhm. mu ne ko dama lay téye bu sa idda jegee ma jëlaat la bu ma bu ma bu ma la téewee ay fan bàyyi waat la bu idda ji kiiwaatee ma jëlaat la rek noonu laa lay téewee rek xam nga loolu mettital la aaya bi wàcc daal ne ah léegi kon fase ñaar lay yem léegi ñaar lay yem ku def bu ñetteel maanaam léegi baada zawji moo si topp waaw baada zawji léegi nag euh, xam naa ne dégguma si sa exposé nga ñëw si code pénal ak lu mu wax ci loolu moo tax ma ma ma posé ko comme question ba xam lan lañ ci mënoon a jëriñoo xam naa ne tamit euh, ay kilifa teew nañ fii si rawatina sunu mhm. kilifa la docteur xaadim mhm. du ñàkk tamit mu def si commentaire ndax jotaay bi ginnaaw ñëw na fi euh, daanaka dañ ko ko waroon jébbal rek ñun daal di daal di kii waaye comme dañ doon modéré moo tax ñu ñu wax ci kàddu yooyu kon jëre ngeen jëf sant nañ bu baax gërëm nañ exposé am na solo lool tax macha allah waaw kon mën naa laa jox nga def sa commentaire tam ma ma tëjaat ko mu mu mat waaw bàyyi ma jaw ah dafa ah loolu ah dëgg bu ma commentaire waat ah d'accord ok ok asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh. ah d'accord d'accord d'accord eh, ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziara di rafetlu waxtaan wi muy waxtaan woo xam ne am naa li ma ci fekkee maître Dabala fekk muy euh, développé fekk naa sëriñ noppi muy ñaari waxtaan yoo xam ne ni ma ko déggee dafay mel ni complémentarité day war a am ci seen diggante ci ñaari waxtaan yi muy loo xam ne nag jamono soxla na ko lool waaye dafa mel ni lii maître Dabo mujj a wax aji wat yenen toogaay bokku ñu toogaat parce que code de la famille bi nga xam mo andi ciowli biñ koy doora def gis mag ñi taxaway biñ ci am ba lola tax na sax yenn borom xam-xam yi diine yi nga xam ne sax ñoo ci jàppale woon état ci yooyu jamono am na ci yu bari yooyu revenir nañ ci waaye ànd ak loolu lépp man enquête yi ma ci mujjee na def aman na booba juróom juróom-ñaar fukki article 72 article yoo xam ne dafa juuyoo ak islaam wér a te booba fekk na sax ñu ñu ñu xoolaat ko ba am ci yuñ ca joyantiwaat yoo xam ne sax na mu juuyoo ak islaam dafa ëpp te ba léegi rek euh, bokk na ci li nga xam ne tax na mu jafe taxawaayu soxna yi ak euh, ñu baree bari <laughs> droit de l'hommiste yi féministe surtout lu ci aju ci maanaam autorité parentale ak yeneen yu bari yoo xam ne mhm. ay masala la yoo xam ne euh, surtout ci bi nga doon wax ndax foofu itam même ci euh, lislaam am na ci réew yu bari yoo xam ne nag xoolaat nañ ko ndax euh, su fekkee ne itam góor gi dëgg la xiwaama bi moo ko yor waaye su fekkee ne nag amul amul amul compétence wala capacité bi mu war a am pour mën a saytu xale bi ci waxtu woo xam ne moom xool nañ gis ne ñoom ñaar ñoo ko seq mais soxna si moom la aju ci yarub xale bi ci taxawu ko ci wàllu njàngam ak ci wàllu yaram biñ defee enquête yépp gis nañu ci jigéen ji la ëpple am na ci réew yi jullit yu bari yoo xam ne ak ci euh, maanaam ñi nga xam ne tey dañoo spécialiste ci woo googu wàll mm-hmm. bu boobaa nee nañ illa dañuy dellu ci illa maanaam mm-hmm. dañuy den al al islaami yëpp tadur mm-hmm. al illa wujudan wa adaman bi wax arijaal qawaamuuna ala nisa bi ma fadalallaahu baadum ala baadin ala baadin jooju nag dañ ko interprété ne loolu mooy mooy li gën a not mooy li gën a doon mooy compétence yi yàlla def ci uh-huh. góor uh-huh. ak moyens yi nga xam ne léeg góor moom moom lay am dafa ëpp nga xam ne li li li xiwaama bi laaj uh-huh. li ci yàlla def ci góor ci ay capacité ak i compétence ci li gën a not mais ci li gën a not nag da ko jaadu mais léegi ay léeg ay ay exception am exception yooyu nag dañoo xam ne fokk nag islam da ciy war di tenir compte lii mooy li gën not waaye buñ demee nag ba am situation bu bu taxaw boo xam ne kat gis nañu ne léeg-léeg loolu li ñu koy gis gis nañ góor ñoo xam ne wax dëgg yàlla euh, euh, du wax dëgg yàlla la war ca taxawaayu xiwaama boobu mënuñu ko mënuñu ko matale mënuñu ko matale ngir xëy na lu leen gaar la walla nu leen yàlla bindee lool ci waxtu woo xam ne nag kam ko seqal di jigéen ji fa tabaarakallaahu yàlla def na moom mën naa matale loolu kon boobaa au lieu jël ndaw si di ko xale bi di ko yóbbu di ko génn kii bi am na uh-huh. eh, eh, daarul ifta yu bare bari yoo xam ne dañoo ne lu mel noonu uh-huh. ay ay situation la yoo xam ne bu maanaam exception la boo xam ne boobaa uh-huh. mën nañ mën nañ mën nañ cee mën nañ cee tënk kon nga xam ne yooyu yëpp tey dafa nekk loo xam ne fiqul islaam yi ak droit yëpp ci maslaha lay aju oh, maslaha rek fu mu ci amee rek fu ci baree bari ijtihaadaat yi def yooyu yëpp Eh, ci la koy ci la ñu koy xoole muy loo xam ne tey <coughs> dafa mel ni rek buñ ci buñ ci toogaatee waxtaan ci dana ci dana ci am solo lool waaye code bi moom lu ñu war a xoolaat bu baax a baax a baax am na yu baree baree baree bari yoo xam ne yu yu ci am barki dem biñ ci waxtaan fi te te sax Sénégal amuñu ci jafe-jafe dëgg dëgg jafe-jafe bi dëgg dëgg bokki diaspora bi ñoo ci am ñoo waxtaan bi moo doon def fële loolu laaj ci lu ngeen traité sax ci ci jafe-jafe yi nga xam ne mooy défi yi nga xam ne suñu mbokk yee nekk fële parce que suñu soxna yi nekk foofa muy ñu yóbbaale regroupement familial dañuy bëgg a préserver li nga xam ne moom la islam may ci ay àq ba noppi bëgg en même itam bénéficié wu ci li nga xam ne moom la leen waaye <laughs> occidentaux yi may surtout ci loolu liberté jigéen ji daa war di liggéey mm-hmm. kenn war koo tëj ci biir kër gi muy togg ko gi daa war di xëy di liggéey mm-hmm. buy liggéey li muy liggéey moo ko moom mm-hmm. buy liggéey li muy liggéey day jàpp ne moom moo ko moom parce que góor gi ci lislaam moom moo war a dëkkal moo war a dundal moo war a def lépp doonte jigéen ji am na man-man wala am na kii kii léegi nag ñoom dañuy bëgg li leen occidentaux yi may ci liberté boobu ñu def ko ba noppi li leen islam joxit ci lim teg góor gi ñu teg ko foofu nag am na ñun temps yi ñuy def sunu sunu suñuy étude ci loolu recensé woon nañ ay sëy yu bare yoo xam ne ci loolu la tase waaw ah, parce que assistante sociale yi toujours dañuy jàppale jigéen ñi ci seeni droit ñuy jot naka noonu xale bi surtout xalé bi ci boppam xalé bi ci boppam comme li Mana wax lolou lolou la ñuy bu fekke ne tay comme autorité eh, marital am parantal autorité parental ño fa am muy góor gi ak jigen gi ño bok ak ci xalé bi tay su fekke ne dañu ki ne man sama dom bi dama ko bëgg yobbu kat dara mu jang alquran ñu yar ko bu bu noppé nak ma do ko duggu école yaay ji ne dede man sama dom di dem dara école lay tambalé xam nga bu dee ci kii bi dañuy laaj xale bi xale bi lañuy laaj bi doon doon xale dañ koy laaj ba xam moom lan la ci tànn bu fekkee ne li tànn la tànn dañ koy kii bu fekkee ne nag li nga xam ne moom la moom la moom la baayam tànn noonu su fekkee nag dafa neutre ci diggante bi ba nga xam ne xëccoo ba nar naa nar na nar naa perturber xale bi booba ci cas boobu sax am na situation boo xam ne sax dañuy récupérer xale bi jox ko jox ko dénk ko ñeneen ñoo koo xam ne moom kii parce que xëccoo bi bu nekkee seen diggante kii xëccoo dañuy wax ne day perturber xale bi donc yooyu muy muy muy défi yu bari ba yoo ah. xam ne moo am foofa ah. te loola nag moom lañ bëgg a indi fii ci ci ah. sunum réew te xëy na sax ci sunu euh, dëkk yee demee ni kii fa tabaarakallaahu ca réew ma waaye bu dee fii ci biir euh, fonctionnaire yi moom surtout ñi ñi kii ñu ci baree baree bari euh, maanaam dañuy obligé wu tënku ci Euh, li nga xam ne kii li nga xam ne maanaa parce que prise en charge beeg ak yu demee ne surtout ci wàllu paju beeg yooyu euh, loolu parce que am na ci ñoo xam ne am na ay conséquences parce que fi ne am na ay jigéen ñoo xam ne ñi ngi ñi ngi liggéey et mën a mën a mën a mën a bénéficier woo euh, li nga xam ne kii mais mënuñu koo am à cause de kii bi kii nekk fii te loolu fokk ñu ñu ñu ko parce que jigéen ji bu dee liggéey war naa mën a bénéficier woo doomam. allocation familiale allocation familiale mën ko mais mënta am mm. allocation familiale parce que loi bi moo ko ko may te. góor ga moom liggéeyut. loolu lépp di ay yoo xam ne yu ñu war a mën a mm. xoolaat la te buñ mm. delluwaat ci biir sariya danañ ko mën a jubbanti ba mu ba mu ba mu leer ndax lu ci bare bare nag ci ay ci ci ay ijtihaadatul la waaye buñ demee ba ca sori sax danañ mën a am. Euh, ay ay bunt bu ñu war a mën a jaar ba dëppoo ak loolu te du te du ak sariya waaw waaye yooyu yëpp nag xam naa ne muy waxtaan bu am solo woo xam ne mën nañ cee mën naa ci mën naa mën naa leeral ah naa jël si affaire sëñ naa ci mën a wax tuuti ah kon euh, jërëjëf euh, docteur am na solo intervention boobu mënul woona ñàkk ndax lu ñu itteewoo la kon xam naa ne dañuy jox sunu ñaaru yi euh, voilà ma jox met daaw ba mu njëkkee ci interpellation bi ñu si nombre de divorce yi soo noppee si question de conditionnalité yi Serigne Mbacke ñëw ci tamit ñu tënk ko euh, doog a mën a yëkkati jotaay bi à- mooy euh, condition bi nga waxoon ne da ngay signé monogamie ba noppi dem ci jàkka ja dem ci jàkka ja wut keneen koo xam doo ko wutal kayit léegi loolu noonu lu muy firi foofu ah d'accord waaw mën naa ci wax tuuti waaw bu la neexee nga ramassé ko tamit waaye moom dina ci ñëw ci lislaam insha allah waaw jërëjëf sëñ sëñ Khadim waaw moom nag da di sama kilifa lool sax xam naa ko bu yàgg bokk na ci waaw wax dëgg yàlla vraiment damay bëgg lool su ma ko gisee

su fekkente ne góor gi nga xamante ne dañ ko jox euh, puissance paternelle su fekkente ne gis nañ ne attanu ko mun nañ def enquête gis ne moom suñ ko joxee du intérêt wu xale bi mën nañ ko ko nangu jox ko ko ku jigéen ki mais suñu féministe yi ñoom loolu la ñuy xeex nee na ñoom loolu nuñ ko defee mu doon kiiwu substitution doyu leen loolu lañ ko waxee sax ñoom waaw le fait que ñu ne fekk ku góor ki defuñu enquête ba gis ne matu ko euh, ñu door lañ ko jox nee nañ ñoom li ko article 277 bi waxee noonu féministes yi moom loolu doy leen daal waaw loolu noonu lañ ko tëggee waaye wax dëgg yàlla na ko waxee jàpp naa ne effectivement lu war a waral ay waxtaan la pour effectivement parce que intérêt xale bi moom la ñu war a xool code de la famille bari na lu bari loo xamante ni Euh, intérêt xale bi lañuy ñuy xool moo jiitu waaw yi saay nga gis xale boo xamante ne dinañ leen euh, nekk ci ay situation yoo xamante ne li ma doon tudd sànq sax ay moo day jar ñu dem ba ci kër yi di def ay visite di def ay enquête di laaj dëkkandoor yi di laaj di dem ci école bi di laajte ba am ay enquêtes yoo xamante ne yi saay soo ko gisee sa yaram day daw daal gis ne lii intérêt kii la daal macha allah léegi ci li ma doon wax sànq su fekkente ne nit ki dafa dem sëy boo xamante ni euh, wutalu ko kayit maanaam su fekkente ne dem nga ci euh, officier d'état civil mu defal kayit ngeen signé nga def monogamie après nga doo yow def nga def nga signé nga monogamie après nga demaat takk beneen beneen beneen soxna mais mariage boobu dañuy jàpp ne c'est nul dañuy jàpp ne c'est nul parce que xam nga sujet bi dafa vaste boo xamante ne doo mën a kii mais y a am nañu cause de nullité nullité nullité dafa am nullité relative ak nullité absolue amna nullité bo xamantene day amal tamit ay conditions c'est-à-dire que su fekkentene gis nañ ne euh, xalé bi amul amul âge bi ñu bi nga waron am té amul dispense tamit amul dispense bi tribunal constaté ñu japp né nullité la ki dafa waron am euh, ñent jabar ñu gis ne dépassé na ko wala dafa waroon signé monogamie mu dem signé mu dem takkaat keneen yooyu yëpp ay ay cause nullité la waaw nullité maanaam loo xam ne dañ ko war a am amaat na tamit euh, nullité su fekkente ne relative la ki ko mën a soulever maanaam ki mun a ñëw ne dafa bëggu ñu annuler mariage su fekkee ne nullité relative la maanaam ñaari waay dencante yi leen dal mais su des nullités relative absolues la moom même procureur mën na ñëw gis ne lii lu lu la mu mu mu parce que da nga war a xam tamit ni état civil registre état civil dafa doon registre boo xam te officier d' état civil bi at bu nekk daf koy daf koy jox procureur procureur dafay dafay vérifier xool ndax amul ay irrégularité ndax amul ay yu mel noonu daal. am na solo jërëjëf jërëjëf kon euh, Serigne Mbacke Mouhamad. xam naa nga briefing ko rek ndax waxtu wi dafa jot ñu war a yëkkati jotaay bi xam naa léegi incha allah. jërëjëf Cheikh Bachir santaat baax maître Dabo ci exposé bu am solo bi docteur sëñ Xaarim Sylla moom itam ci commentaire bi xam naa li mu li mu doon wax ci ki nga xam ne dafa def monogamie maître Dabo ngir bëgg koo jegeel nit ñi mooy yow da ngaa dem. sart sartante sart da ngaa sartante maanaam comme kàddu nit ki lay wax fi mu toll nii da dem ba ngay takk sab sëy wala ba nga koy fas nga daal sa jaayanteeg moom ne ko ci kenn laay yem léegi nag dafa am benn volet juridique bu ci nekk mooy ne kon signé nañ ko foofu loolu yàgg luwaa la moom yow sañatoo ko oh. keneen ku ñëwaat ci ginnaaw bi luwaa jàppewu ko muy maanaam mariage boobu àndu ci moom sax loolu la xam moo tax mu dem takk takk kooka ca jàkka ja du ko déclaré mukk yaakaar na li mu ko waxaat fii mu expliqué ko moom jërul laaj ci wàllum droit positif ci code de la famille ba xam ànd nañ ci àndu ci li ñuy wax mooy lislaam nu mu ko gisee sëñ Bachiru tontu na ko sommairement oh. mooy en principe ci lislaam xadis ba dafa wax ne المسلمون على شروطهم وهرجات إلا شرطا حرم حلالا أو حرم حل حلل حلل حراما lañ di ko aw xall xaraaman maanaam jullit ñi dañoo war a tënku ci seeni charte loolu mooy principe mu indi exception nag illa chartan sauf nag charte boo xam ne daa fekk lu xaraam mu bëgg koo daganal wala dafa fekk lu dagan mu bëgg koo xaraamal mu ne su boobaa charte boobu moom dafa doon nul et non avenu léegi nag moo tax ci sëy nii dafa am suñ koy jàng dañ naan am yenn maanaam condition yoo xam ne dañoo nul parce que dafa sàmmoonte wut ak euh, règle générale ci l'islam ak yoo xam ne maanaam ce sont considérables daal mën nañ koo xool jàpp bii mu tudd nii da cee bokk boobu mu tudd da cee bokk jërëjëf euh, kon leer na boo ko defee kon euh, mbokk mi sëriñ xaadim bokk si ñi taxaw fi ci jumaa ji dafa am rek benn kàddu bu mu ci bëggoon def ci ñetti minutes rek waaw bismillah alaykum wa rahmatullah maître la am question bu ma koy laaj rek ci lim ci lim doon leeral léegi rek waaw ci doon laaj li ngeen wax ni boo xasee ba signé monogamie ci benn sëy même bo démé ci beneen sëy it gami bob moo lay topp. may laaj lolu esprit bi principe bi. ok la bëgg xam moy benn bi. merci jërëjëf benen benen benen question bi bu fekkee yaa ngi noté mooy comme li nga wax ni tribu sëy bi bu demee tribunal grande instance wala cassation diggante boobu yëpp it ku jigéen ki mënta sëyaat. may laaj ñàkk a mën a sëyaat googu ngeen ko xañ ndax am ngeen exception bi yéen ci ci baro bi maanaam gis ni ña koo xam ne dafa defoon dafa demandé woon divorce procédure bi dem ay at ba mu yàgg ñoom ñu mujj delluwaat àndaat di sëy ndax am ngeen exception boobu. bu ñu yàgg leeral leeral la mujj ñoom ñu si dem waaw ah d'accord macha allah jërëjëf waaw question bi macha allah question bi am na solo lool ñaar yëpp am nañu solo lool euh, esprit bi effectivement. question bi am na solo lool ndax article bi wax loolu am na esprit xam naa sànq aw moon jot mais mayaat nga ma ma indi esprit bi lu tax esprit bi am solo mooy ni dañu jàpp ni gannaaw yoon dafa ne code de la famille dafa ne régime normal bi mooy polygamie maanaam soo ñëwee rek ñu ne polygamie day mel ni yow day mel ni tànnuloo parce que soo tànnul sax polygamie lay tànnal donc soo xasee bay tudd monogamie ak polygamie limitée foofu nga door a tànn foofu rek nga door a tànn kon waaye soo ñëwee sax soo waxul damay sëy ak kii sax nga noppi parce que dañuy def polygamie mooy régime de droit commun léegi soo xasee ba jël monogamie léegi ci esprit wu législateur bi day jàpp ne la foofu nag commencé nga dugal naxaate kon gannaaw yow da ngay jéem a nax nit ki kon dañuy fexe ne kon doo ci génn kon def na ne yow da nga ko nax parce que yow soo nee monogamie kon dañ naa ah kii da nga ko bëggoon takk nii rek mais au fond yow monogamie taxu laa jóg dafa am ko bëggoon nax rek bu takk ko kon sanction bi mooy gannaaw yaa ko yaa ko yaa ko tànn même soo pare kii dalay lay topp hmm. ah loolu mooy loolu mooy esprit bi en fait. Ah, leer na loolu maintenant est-ce que xawul ëpp. loolu beneen loolu jërëjëf jërëjëf macha allah xam naa ne waxtu yi xoj nañu. léegi léegi beneen bi am na beneen question. wala c'est bon beneen waaw beneen question bi ndax am ngeen ay exception ci ñi nga xam ne processus bi dafa yàgg ci ñoom. Mhm. ñuy xaar soyaatuñ ba ci yàgg ñu delloo siwaat leen ñoom ñu àndaat. waaw waaw ñoom ñaar. xam nga sëy boo xamante ne euh, tas nañ ko xam nga.

xam-xam bu bari génn na fii dafa mel ni mën naa nekk buntu sax revoiraat code bi bu baax a baax si rawatina li fi génn ci ay xam-xam kon euh, mbokk yi ñi ngi sant bu baax ñi nga xam ne ñoo taxawal jotaay yi di sant euh, si sëriñ Issa al imam sëriñ Issa Gueye di sant euh, sunu ñaari conférencier yi sëriñ Mbacke Mouhamad loo Met Dabo di sant sunu mag ci waar wi docteur Khadim Silla sunu xarit Serigne Khadim Ndiaye ak mbollem ñi nga xamne ne ñoo toog nii jàkkaarloo ak ñom di topp jotay bi ak ñi nga xamne xeyna ci xarala yu bees lañu jaar euh, di topp jotay bi ñom it ñu ngi leen di beral ak cant bi ginnaaw bi ñu santee conférencier yi ak ñi nga xamne ñoy euh, présence bi ñi ngi sant mbollem ñi nga xamne ñoy ñooy jotay bi ci internet ak ci télévision bi en direct euh, di ñaan yalla sunu boroom mu may ñu yeneen jotaay yu mel nii yu baree bari yoo xam ne nit ñi dañ fay xamee seen diine xama seen àdduna mu bokk ci tuyaabay koor yi incha allah jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yàgg na yàgg na yàgg na loo na yàgg na maa والصلاة على الذي شفع في بالصلاة حرف السين المعجمة سوقي وودي ومحبتي معها لمن جلالا وجمالا جمام سفاني السافي بساف منجي والروح والقلب والجسم ينجي سكري لذي الجلال والإكرام وجادلي بمهدر مرامي سفاف آدي وديني والبدن من كل داء ومها الددن سبعي وريي ومنامي واللباس وعادتي معا لربي دون باس سربي وأكلي وجلوسي والقيام سكر وسكر كصلاة وصيام سريعة المختار صلى الله عليه في الآل وموالاه سريعتي وهو دواما جنتي من كل ما يسوءني وجنتي صفاء في الكريم الأكرم وجاءني من الأدى والكرم سقمني اسمه سماه السمد فالله محمود ودا محمد شعر امتداء المصطفى صلى على ربي بآله وكل من تلا حرف الهائم هدمت ما بناه كل من جحد من الفئاب قل هو اللاواد هداني الأهد بالتوحيد وبامتداء المصطفى الويد هدي النبي المصطفى هداني وليراد كل من آداني همت بي الأعداء هام جيسسه وشرفوا أني يا آم حيسسي هبات وآب كريم أقبلت إلي والإداء جميعا أخجلت هددهم سجر قوي منتقم يكرم من لنفسه لا ينتقم هو الإله العدل هو الإله الأحد العدل الصمد الرافع السماء من خير أمد هو الإله الأحد العدل الصمد الرافع السماء من خير أمد هو لهم مع أنبياء بدري ردي وأنا رب بدري هدية الصلاة بالتسليم على النبي مدينة العلوم هاجرت لله وللرسول من النصارى ووجدت سولي هب للنبي المنتقى الصلاة مع سلام وكفني القلاة حرف الواوي وجهت وجهي إلى الهادي الجميل هبدا قديما ساق مور بجمول بجميل وجهت وجهي إلى الهادي الجميل هبدا قديما ذا ظهور بجميل وسيلتي إلى الجميل ذو البهاء وارتجي منه به تنبها ودي لله الكريم الأكرم وللجمال ذا البهاء المكرم ودي لله الكريم الأكرم وللجميل ذي البهاء المكرم وجهي وديئة له وجسمي والروح والقلب ويعلي قسمي وسرت بالله الذي لا ينفد مع إن عنده وراد لي من يسد ولا الذين كابدوا وأخرجا أني بقس وسقا مسترجا ويل لهم ويل لهم تبا لهم تعسا لهم تعسا لهم أف لهم وقاية لا يتقيني كلما يسوني في أبد مسلما ولت مقتير لي في إذن من له البرايا ويرد للزمن ولت مقتير لي في هزن من له البرايا ويرد للزمن ولت في جيب رسول الله أبدا قديما راديا بالله وجئت بالصلاة والتسليم الأليم على النبي وإيل الأليم حرف الله لا نفع ياتي ابدا ولا ضرر من خير من به استعس من غرر لا اشرك السيء بربي ولا إجال خيره على المعولا لا اترك النيل الذي لي وجها وسرت كليا له موجها لا ابتغي بس الجلال عودا ورد لي معطير لي وعودا لا أبتغي بذي الجلال ورد لي ما بعته وأودا لا أبتغي خير النبي وسيلا وفي الإدا وجالي لي جميلا لا أرئف الأقلام في خير الجليل وخير أبده رسوله القليل لا سك أن من هدى الأنظار يرود لليهود والنصارى لا يختسي قديمه صولة من يسول للضرر في كل زمن لا سك في كون ابن عبد الله سيد جملة عباد الله لا يسئل القدر مثله ولم يسره هو الخلق والفرض العلم لا يسير القدر مثله ولم يزهره وهو القلق والفرد الألم لا تترك الصلاة والتسليما عليه أني وكفني الأليما حرف الياء يا عدل يا قوي يا منتقم إني يا عبدك ولا أنتقم يقودني إحياء كلمتي يا ربي إلي الشعر تقبل نسكيا يقودني إلى امتداء المصطفى عليه منك صلوات تصطفى يقين قلبي بكثرة الوداد عليه سلم ولتجلي بسداد يا ربي سلي بسلام أني عليه وسني به بالمن يمين ربي إن ربي يا أحب لي من سواه والنبي بعد الآب يقودني لمرحه التوحيد وعنك يا أكرم لا أحيد يا سل الوجود والبقاء والقدم صلى عليه وكفه به الأدم يا سل مخالفة للخلق معا سلم عليه والعدال يقمع يا الله يا ودود يا أكرم يا بديع يا رحيم يا مكرم يا يا الله يا واهد يا غني يا من له الأمور يا علي يسر به أبي ووجه كرمك لي أبدا وليقلد مرحمك يا ربي فرح حورك الإن معا كتبته وليقلد شبعا يا من سوري مع اختتامي له به كل بلا اختتامي يا الله يا أحد يا خير سمد يا من يقيني الممات والكمد قتلت من إليك ينسب الولد بك وكنت لي وتيبت القلد يا من ذا أن أهل وولد وحاجة وعن زمان وولد أعيتني بقل هو الله واحد يا معين ليس له كفناد سل بها أني على خير سمد وسلما وامحو به أن الفند أقمت سكيت أتعت بالقلد جلي برحمة وجلي بالبلد فارقت أهل الكهف فارت الغدد كالأنبياء بفنالا أنهدت غافت أهل الكهف فارت الغدد كالأنبياء فيما تهالى أنهدت حفظ موتي وبعت يا سمت يا من يقيني القبور والكمت وجل بجاي عزيم خدمتي كقدمي سهاب خير الأمة وجل به رجال بدر الكرام مي في الدارين في كل مرام وجل توسلي بهم إبادة مقبولة تجر للسعادة يا ربنا صل على محمد وآله ما سياب الهمد والترد أن نائبي صديقي في الخارج التصديق والترد أن وزيري سيدنا عمر التفريقي والتردن ماموني أسمانا وزد غفرانك والأمانا وهو الذي قد فاز بالنورين وبيومر حمني في الدارين والترد أن وارثي علي ابن أبي طالب علي باب الولوم والد سبتين وليب بجاي بستين وسلي يا قير إله أبدا على محمد ومن تابد من آلي وصحبي واملي جوار جواربي وزهزي كبلي وليا بأهل حرف الهمزة نفى كتابك ولكشف رمزة يا ربنا سل على وسيلتي محمد وزد به فضيلتي وارتد أن أبي من كهبي وعلمني وأهلي كابي وسقردان أبدا للأهنسي أسلمي وانفي أني دنسي وسقردان أبدا للأقغمي ابن لبي لقمي وفي سقمي وسهردان سمدا لأسدا ابن يزيد وهمني واسدا وسقردان سرمدا إلى أنس ابن مواس ولت اسني من فنس وسقر دان سرمدا لأنس مولى رسولي واكفني مدنسا وصل سرمدا عليه بسلام بيالي وسبي مزازي سلام وصل سرمدا عليه بسلام بالآل وسبي مزازي سلام وسقر داءك إلى أنيسي ابن قتادة وأزم نوسي وسق رداء سرمدا لأوسي وابن ثابت وثبت أوسي وسق رداء سرمدا لأوسي ولد قولي وكمل الجوسي وسق رداء والترد عن إياس مني أوسي ونجني من مهسم وأوسي والترد عن إياس مني أوسي ونجني من مهسم وهوسي وسق دان سرمدا إلى إياس ابن بكيري واكتب الدهر الإياس لجملة الأهداء من ركوني إلي يا ربا لو سكوني ولتبني لي قسنا حسينا وهمني في بأهلي ولترد لي زمني يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآله وسبي الدرر والآلي وارد بي عن أهل حرف الباي من قاتلوا إذا زوي الإباي وعن بجير بن أبي بجير ارضى ونجني به من جوري والترضى عن بحاس من سالبه وسق بي لي ما يفوق المطلب وسق رداك للبراء ولدي محرورني ردي وهمي خلدي والترد أن بس بسطني أمري ولسري صدر ويسر أمري وسوردا أن سرمدا لبشري ابن البراء والتقل بشري والترد أن بشير من سادي وبيبشر زمني زا سادي وسور ذاك لبلال بن رباح وجل مكوسي خير بر ورباخ ولي بالباي خير بركة ولي صحر مشركا ومشركا يا ربنا صل صلاة تنجلو بها نسامي خير فيل يفعل على النبي المجتبى وسلمي والآل وصحبه وكل مسلم ولترضى عن صحابه جميعا يا خير مون لم يزل سميعا وزد ردا عن أهل حرف تاي وأني يمحو المذهب الفتاي وسرداك لتميم المولى كراش هاوي يا مولى وسرداك لتميم المولى أم نائر من وهدني بالأولى ولتميم يعار سردا وليتم ما قصت ردا بجايم وجايم ووفقي وبي النوير بهداك أفقي وسق صلاة بسلام النبي وإن دو اجعلني فوق الجنوب ورد عن السهب معي والحني باب هدى وبردشك الحني يا ربنا سل على محمد وعلي وسابي والهمد واملي اليوم سبوت القدم بأهل ثاي واذكر قدمي والترد عن ثابت من أقرمي وليكن في أبد بالكرم والترد عن ثابت من سهلبة وسرمدا سقلي فوق المطلبة والترد عن ثابت من قالدي وجد لي اليوم بفوز قالدي والترد عن ثابت من أمري ولسري صدر ويسر أمري ولتكفني ديخ ما زلزالي بالمنتمي منهم إلى هزالي ثابت الشهيد في اليمامة ولترضى أنهم ولتدم إتماما ولترضى أن سهل بتم قاتبي ونجني به من المعاتب ولترضى أن سهل بن أمري يوبي وتصفي أمري ولترضى أن سهل بن عنما ونجني من باطل ومسلمة والتردى عن سهب سليل أمره وليكن بالجود يا ذا الأمر يا ربنا سل صلاة بسلام على الذي جاء بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه واستجب سؤالي وليب بأهل حرف الجيم salaamatan min xiyali rajimi wajbur liyal kasra wa ahsin li iyaab bi jaabirin yunsabu li jaddi riyaab wa ibnu abdillahi warda anhu wansur janaabi abadan wa sunu wa ajbiril ahdaali ilaahi bi xaqi jaabir ibni abdillahi saliili hamrin warda anhu abada yaa xayra man yujbiru man lam yahbuda والترد أن جابر بن سري وجل يا خير زهري واكتب رداء أبدا لجبري ابن عتيك والتقبل زبري وسرداءك إلى جبيري ابن إياس وتطي ميري يا ربنا سل صلاة بسلام على الذي شفى وزحزح سلام سيدنا محمد والآل وصحب من في الناس كالآل وحد بحق أهل الحف الحاي كل وأيبي أي سمهاي ورد عن الحارس من ينمى إلى أنس ردي وزهني إلى ورد عن القارس من قد انتمى لأول أوس أمي حريسا محتمى ولترضى ورد عن القارس من قد انتمى لأوس من رافي بالمهتما ورد عن القارس من للنمواس أوس النمي يا خير من أبدى الناس وامني الإسمة من كل بلاء وامخ أيوبي ومسائي يقبلا ورد عن القارس من لقاتبي ينسب وبل لبنا وواتبي ورد عن القارس من لقاتبي ينسب وبل لبنا أواتبي ورد عن القارس من لقسمه نمي وقلبي أقي أقي جسما ورد عن القارس من إلى أبي قسيمة ينمى وجنب ما أبي ورد عن القارس من لسمه ينصب واصرف جنين الزمة وارد عن القارس من لسمة ينصب واصرفني عن المزمة وارد عن القارس من للفرجة نمي يا من قد رجوت مهرجة وارد عن القارس من لأرفج نمي يا من قد رجوت محرجا وارد عن القارس من لأوسي نمي قبيلة هو ابن قيسي ورد عن القارس من لحصرجي نمم قيس ولتحسن مهرجي وجل عبادك رجال بدر من يفي الدارين وفقدر وسور داء أبدا يا رحمن للقارس الذين ما للنقمان وسور داء أبدا يا رحمن للقارس الذي انتمى للنقمان وسوردان أبدا لقارس ابن سراقة وكل الوارث ولترد القارسة ابن نقمان وليكن بجايهم يا رحمن ولترد أن قاتب الذي انتمى إلى أبي بلتهة بالمهتم والترد ترد عن قاتبني أمري ونجني من حاسد وصور داك أبي من غير بابي وصور داك إلى قبيبي ابن الأسود وكن طبيبي هب لي بقرمة القباب وقبيب كونك لي يا خير رب وقبيب ولترد عن حرام مني ملهان وقي لساني يا أفيز الأرهان وسوء إلى قريس من زيدي خير ردا وليجد بزيدي والترد عن حسين نيل قارسي يا خير مبود بخير وارسي وسوردا لابن خمير حمزة وسوردا لابن حمير حمزة ولرئيس السوداء الحمزة حمي أبي بك ابن عبد المطلب وجلوا في خير جنان ينقلب وانسوا علي الهام يا إلهي بركة الماء ابن عبد الله وبركات سهبي جميعا وبركات سهبي جميعا يا خير موت لم يزل سميعا يا ربنا سل صلاة بسلام على الذي كفى السقام والكلام سيدنا محمد والالي وصحبه والمقتفي الأفعال وليب بأهل حف القاي سادة تدوم بالرهاي والترد أن قارجة ابن سيد وجل فلاهي أبدا زا سيد أن أبدا لقالد ابن بكير وزئني والدي وسوردا لخالد بن قيس وزدني للمورق كيسي وسورداءك إلى قبابي ابن الأرت الصادق القباب وابني اليوم غسوق في الغلام فيدا وفتحا يا حكيم يا ليم وسورداءك لمولاه تبه حبابني ردي وابلي رتبه وسوردا أبدا لابن إساف حبي بن مردي وانف للكساف وسورداك لكسداس ينمى إلى قتادة وصولي هنما وسورداك لقديس ينمى إلى قتادة وصولي هنما والتد عن قراس من سمتي ولياب كوني بشر الأمة والتد عن قريم من فاتكي وليسقي كل بين فاتك ولترد أن قلادي من نرافي وتونني بكم عن المنافي وسور داك إلى قلادي ابن سويد واهدني بلادي ولترد أن قلادي من أمري وفي رداك الأكبر أبقي أمري ولترد أن قلادي من قيسي وزد تنبهي وعصم كيسي ولتبدأ القليد من قيسي ولي قيرودا وقيسي ولتبدأ الخليفة المهروفي بابن أدي ولتد مهروفي ولتبدأ الخليفة المهروفي بابن أدي ولتدم تهريفي وسورداك إلى دي خزيسي وسورداك إلى قنيسي ابن قزافة وزاز نوسي وسرداك داك إلى قواتي ابن جبير والتدم قيراتي وسرداك داك إلى قولي ابن أبي قولي والإسكوساي يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي تكفي بقلب قلب السلام سيدنا حبيبنا محمد والي وسبي ومهددي وليب بأهل حف الظالم زكا عقل وصبا البال ورد عن قيسيم زكوانا ومؤيوب وفني نيرانا وسوردا لذي الشمالين الذي لأبد حمر ينتمي وانتويزي كني مهيزا بك من كل بلا وكلما نويت فيك كملا يا ربنا صل صلاة بسلام على قبيبك ولقبل ذا الكلام سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمال سل على سيدنا محمد والي وسابي والهمد ولي بأهل حف الرأي تديني بسنة الحراي وارد عن الرافين من مهروفي بابن يزيد والتدي مهروفي ولتدع الرافن السير بابن محلى والتدم تطهيري ولتدع رافع ابن انجد ولي سهادة مالجد الجد ولتدع ربيعة بن رافي ولتدع ربيعة بن خارسي وليكن يا خير باق وارسي وصور داءك إلى ربيها وابلي الباطن والسريها وصور رداءك إلى ربيهم واستر مني أبدا ما بيه وصور رداءك إلى ربخي والتهيني بالحمل شرهي وصور رداءك إلى رخيل وليب إحياء كل ليلة والترد أن رفعت من أمري وفي الذي اخترت أبقي أمري والترد أن رفعت من رافي وأملي فأنت خير رافي يا ربنا صل صلاة بسلام على قليلك الذي جل السلام صل بتسليم على محمد والآل والصحب وأمري أحمد ولي بأهل حفظ زائما نويت فيك قائما وسائما والترد سرمدا أني زبيري ولي طيب يا كمير ميري والترد سرمدا أني زبيري ولي طيب يا كريم ميري والتد عن زيد إلى مزيني قد انتمى وأن يمقو سيني والتد عن زيد إلى اسلم انتمى والتد عن زيد لأسلم انتما وأرني وجه البهي المحتمى والتد عن زين إلى ودية نمي واملي مكنة رفية والتد عن زيد إلى القتاب ينسب وانشرني مع لقتابي والتدا زيد النمي لقارس وبالنبي أبلي كوني وارس والتردى عن زيد النمي لدسنا والتقني دنيا وأهرا فتنة والتردى يا كريم عن زيادي ولل حمر والتدم رسادي وسوردا إلى زياد بن لبيد وأني يسرب كل ما ليس يفيد يا ربنا صل صلاة تجلبه بها إلي سرمدا ما أطلب على محمد وسلم أبدا بالله وسب وزدني يودا ولي بأهل حفتاي وبالذي منفرد بزاي تهارة من جملة الأدران وكون سلي رحمة الأقران وسوردان ناميا لتلحى وليسر بسارة وفرها وسرداك إلى طفيلي ولد مالك وكس نيلي وسرداك إلى طفيلي ولد قارس ونور ليلي وسرداك إلى زهيري وجل حياتي قيات خيري يا ربنا صل صلاة تجد بأنني إياك قدرا أهبد ما سلام قد تهينني به على إبادة وتهليني به على وسيلتي إليك أحمدا والآل والصحب وكل سرمدا ولي بآل حرف الكافي سادة وإسمة يا كافي وسورداك لكهب ولدي زيد وساقي جسدي وقلدي وسورداك لكهب ولدي جمسني المهروف بالتجلد ولياب صحة عقد ومقال وسعة الأفعال وقل للهقال يا ربنا سل صلاة تبتل مكائد الهدى بها فتبتل مع سلام دائم تكمل مراد من هدو به فيكمل على إمام المنتقين أحمدا والآل والصحب وكل سرمدا وليا بأهل حرف الميم فوزي بالتكميل والتتميم وسورداك لمغال النمي وسورداك لمالك النمي إلا أمية وكس مهنمي وسورداك لمالك ولد قدامة وسمد القنينكت نكت وسور داك لمالك نسب إلى دقيس من دقيسم ولسوما تهب وسور داك لمالك ولد قدامة وسرمدا قن النكت والترد عن مالك من أمري ونجني من شهوة وزهري وسور داك لمالك ولد نميلة ونجني من الفنت والترد أن مالك مني مسون ومني يقبل أبلي يا مهبوط والترد أن مالك من منصوبي إلى ربيهة وكن محبوبي والترد أن مالك مني رافي ولتمني أمري كله في النافي والترد أن مالك من منتسبي لابن أبي قولي وكسر أدبي وسرداك إلى مجزري وإنك يلني غدا ذا بشري وسردا ناميا لمرشدي وزدني الهلم وقلد رشدي وسرداك إلى مبشري ونجني من حتر وهرر وسرداك إلى محرري ونجني من موجبات الدرري وسرداك إلى متهري ولي كوني ذات مهري وسردا ناميا لمنذري وسيرني بك ذات حزوزي والتدأ محمد بن مسلم وبي بشر مسلما ومسلما وسرداك إلى مرار وابلي التجديد والإنار وسور داء ناميا لمقلي وإنك اجحلني ذات فضلي وسور داء ناميا لمقلي وإنك اجحلني ذات فضلي سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين